Mesdames, Messieurs, bonsoir. Euh, vous venez de suivre le message de Nouvel An du président de la République Macky Sall, message du 31 décembre 2016. Nous enchaînons à l'instant avec un débat et nous recevrons du côté du pouvoir Maître euh, Sidiki Kaba, ministre euh, de la Justice, Abdoulaye Villane, porte-parole du Parti socialiste. Bonsoir, messieurs. À ma droite euh, maître Adama Gueye de Avenir Sénégal euh, bi ñu bëgg bonsoir maître. Bonsoir. Et puis nous avons euh, à l'extrême droite euh, Tafsir Thioye du Parti démocratique sénégalais bonsoir. Et enfin nous avons Maurice Ndione enseignant chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis bonsoir professeur. Bon, on lance par cette grosse information, il faut le dire, c'est le fait marquant de ce message de nouvel an du chef de l'État, c'est la baisse du prix de l'électricité. soit un don de 30 milliards de francs CFA aux consommateurs. Commentaire de Monsieur le ministre en tant que membre du gouvernement C'est un, une mesure et qui montre le souci du chef de l'État euh, de diminuer autant que possible Euh, les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés, parce qu'avec cette baisse de près de 30 milliards, cela voudrait dire que le pouvoir d'achat des Sénégalais vont augmenter pour pouvoir donc euh, faire face euh, à l'achat des denrées alimentaires et bien d'autres biens dont ils ont besoin dans le quotidien. C'est un signe également aussi euh, qui prouve que le chef de l'État est engagé dans l'axe 2 euh, du PSE, qui n'est autre que la solidarité nationale, et en pensant aux autres, c'est-à-dire les plus faibles, que la justice nationale, la justice sociale, puisse donc à tout instant euh, être vérifiée à travers les actes concrets du gouvernement. Je pense que c'est une mesure euh, très importante et, et, et solidaire qu'il faudrait saluer et je pense qu'il faudrait le prendre comme ça et parce que Euh, les politiques qui sont menées à l'heure actuelle pour le mix énergétique, c'est une des, euh, une des réalisations concrètes euh, de cette politique, un de ses impacts et son résultat à travers donc la mesure qui a été prise par le président de la République et que nous saluons et que je suis sûr que qui plaira à tous les Sénégalais. Tafsir Thioye du Parti démocratique sénégalais, de l'opposition, c'est une baisse significative selon vous, 10 pour cent milliards de francs CFA. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation et saluer mes co et, et de bonnes heureuses années à tous les Sénégalais et le plaisir que j'ai de revenir ici sur sur les plateaux de télévision. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Et sur l'énergie, avant de parler de l'énergie, je pense qu'il est important que nous puissions comprendre le contexte dans le président a fait son discours. C'était un contexte difficile. Et ce discours, je pense, c'est un discours haute portée. Puisque si vous suivez le discours du président depuis aujourd'hui, c'est un discours très long. Et on nous disait qu'il parlait pour 10 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui, il a parlé de plus de presque minutes ou plus. Ça veut dire quoi Qu'il essaie de faire un bilan. Et la dernière fois, revenez sur le discours de la dernière fois. Toutes les annonces qu'il Heureusement, cette année, il n'a pas parlé de croissance. Il n'a pas parlé de chiffre. Si, a parlé de 6,6% croissance. Oui. Il, parle de la, de croissance en termes de 6%. Mais il n'a pas parlé de déficit, il n'a pas parlé de tous les chiffres qui encadrent, euh, le cadre macroéconomique. La baisse, quand même, c'est. De toutes les façons, oui, cette Nous avons au gouvernement du Sénégal qui n'a pas de pitié pour les Sénégalais. Depuis le pétrole a subi une baisse extraordinaire. Et comparativement à la période de 2001 à 2012, où le baril a connu une hausse vertigineuse jusqu'à 150 dollars, aujourd'hui nous sommes à un niveau de baisse extraordinaire. C'est aujourd'hui que nous annonce 10% de taux de baisse de, baisse de l'électricité. Après avoir pillé les Sénégalais, parce que le fonds de soutien à, à, à, à de stabilisation des, impo des importations des produits pétroliers aujourd'hui donne combien de à l'État du Sénégal Plus de 75 milliards puisés des Sénégalais. Vous pensez que cela est sérieux Aujourd'hui, on nous annonce milliards, ça fait pas sérieux. Et nous, pour cette baisse n'est pas significative. Mais c'est rien. La preuve, il a fait baisser les, prix du pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui les transports ont baissé, les prix du transport ont baissé Pourquoi Parce que ça n'a pas de sens. L'État aujourd'hui pille les Sénégalais depuis le début que le PSA a été mis en place j'avais dit ici que c'était une honte ce plan ce plan de développement c'est un mauvais plan aujourd'hui quel est le seul indicateur qui a été respecté au niveau du PSA rien du point de vue des investissements ils sont obligés aujourd'hui cette année de taxer encore les Sénégalais sur l'arachide sur les télécommunications sur le ciment alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient baisser les, prix des loyers la base mais de, de, de, de programmation, mais qui n'ont aucun sens des réalités, aucun sens des réalités, parce que basé sur un volontarisme qui n'a pas qui est mal, mal placé. On reviendra et, sur les et, autres et, éléments du discours. si vous permettez, on va essayer d'organiser le débat. Pour le moment, on parle de la baisse du prix de l'électricité. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu la pyramide inversée, parce que c'est l'information la plus importante, à notre avis, de ce message à la nation. Abdoulaye Villane, cette baisse de 10%, Tafsir Tchoy pense qu'elle n'est pas significative. Je, je, je, je vous remercie et je voudrais à mon tour saluer mes co-débatteurs de ce soir et avoir une pensée pleine de respect pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, des étrangers qui vivent dans notre pays et nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui nous suivent ce soir, 31 décembre 2016. Je voudrais ensuite remercier la TFM pour cette initiative qui contribue à la démocratie, au renforcement de la citoyenneté, mais à la promotion également de la bonne gouvernance. Et cela dit, euh, la question relative à cette bonne nouvelle, ce, ce cadeau de nouvel an de, du chef de l'État est à apprécier à sa juste valeur. Nous, les, les hommes politiques, ayant en vue de, un rendez-vous électoral, nous allons essayer de brouiller les pistes, de minimiser alors que le patronat ne réagirait pas de la même sorte alors que les Sénégalaises et les Sénégalais du chef de famille jusqu'à l'ouvrier ou euh, à l'artisan qui a besoin d'énergie ils n'ont pas cette appréciation que mon ami Tafsir vient d'avoir c'est une bonne nouvelle quand une bonne nouvelle arrive il faut l'apprécier objectivement nous en avions besoin tout le monde le voulait et c'est maintenant que le président de la République sur la base des réalités. Des il n'a pas dit que c'est une mauvaise nouvelle, mais il dit qu'elle n'est pas significative. Oui, mais qu'en pensez-vous oui. Mais comment peut-on, sérieusement, regarder les Sénégalais droit dans les yeux en disant tout de suite que cette mesure n'est pas significative? Comment est-ce qu'il a apprécié cela? Sur quelle base s'appuie-t-il pour dire que c'est pas significatif? 30 milliards qui vont être enlevés des recettes de la Sénélec. Et moi, je considère que cette baisse, je l'appellerai cerise sur le gâteau. Parce que le président applique. À quel moment a-t-il choisi de faire cette annonce Après avoir assuré, mieux qu que le PDS ne le faisait, une fourniture d'électricité. Après avoir commencé à créer des conditions d'une diversification des sources d'énergie. Notre pays est aujourd'hui en mesure, après avoir résorbé tous les gaps et tous les déséquilibres, tous les déficits causée par le régime alter, euh, euh, de, de, antérieur, mais notre pays est aujourd'hui en mesure de concéder cette baisse sans renoncer aux ambitions que nous avons de moderniser et de rendre plus performante la Sénélec. Je salue objectivement cette mesure. Si le gouvernement peut faire encore plus et mieux, nous serons preneurs. Maître Mamadou Gueye de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg une baisse de 10% du prix de l'électricité, 30 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est une baisse significative euh, Permettez-moi, bon, d'abord, <clears throat> à l'instar de nos co-débatteurs, de vous remercier pour l'invitation, de saluer les co-débatteurs et de saluer vos, vos téléspectateurs. J'essaie de l'apprécier à plusieurs niveaux. D'abord, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des consommateurs. Oui. J'ai remarqué une chose je ne sais pas si c'est le cas pour mes co-débatteurs ou pour les téléspectateurs, les dernières factures que j'ai reçues ont connu un bond significatif. Alors je, je, je les veux... factures chères Ah oui, non, un bond significatif. vraiment, je, le dis euh, très sincèrement, un bond significatif. Alors, je ne veux pas croire qu'on qu qu crée les conditions pour, euh, pour euh, ensuite euh, diminuer de 10% sans que ce soit une diminution réelle. Parce que si vous augmentez insidieusement les factures euh, de 20% et qu'ensuite vous diminuez officiellement de 10%, l'annonce est belle, mais il faut regarder de plus près. Et ça, je, le mesure à mon niveau. Vraiment, j'ai reçu les factures. enfin, ça, c'est Mais au-delà de ça, pour les consommateurs, c'est très bien. baisse quand même. Aujourd'hui, le secteur de l'électricité, les factures d'électricité pèsent beaucoup sur le, budget des ménages. Il faut pas le négliger, La question qui se pose, c'est qu'il faut quand même faire. Ça, c'est l'appréciation générale. C'est objectif. Moins 10, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Maintenant, faut quand même pousser l'analyse. C'est qu'est-ce qui était possible C'est la question. Apprécier objectivement la qualité d'une mesure, il faut l'apprécier dans sa globalité. Comme l'a dit M. le député Tassier une des euh, un éléments les plus significatifs de la structure du prix de l'électricité, c'est le, pluripétents. Depuis quelques années, ça a eu une baisse drastique. La question qui se pose, c'est que est qu'on a correctement répercuté au bénéfice des Sénégalais c'est une analyse. Je ne suis pas économiste, je pense qu'au-delà de l'annonce comme ça, il appartiendra aux économistes, aux spécialistes d'analyser pour voir si on a correctement répercuté aux citoyens sénégalais les économies faites par l'État sur la, le, pétrole. Ça, c'est évident, c'est objectif. C'est depuis des années. Maintenant, euh, on le fait maintenant. C'est toujours bien. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on le regarde de près. Je pense que les organisations de consommateurs, les économistes, devront, au-delà de l'effet d'annonce, aller plus loin pour analyser. Parce qu'on a eu quand même les exemples. Quand le gouvernement même, combien de temps le gouvernement a mis pour répercuter partiellement aux consommateurs les baisses du, de, du prix de, du carburant à la pompe. Nonobstant les baisses très importantes du prix à l'international. Donc, c'est ces chiffres qu'il faut regarder. Si aujourd'hui on nous dit, on peut nous dire que cette baisse a eu comme conséquence positive sur le budget de l'État 500 milliards et qu'on nous dit qu'on nous a donné 30 milliards, là, un problème. C'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser. C'est bien accueillir une nouvelle parce que quand, quand quelque chose touche positivement le budget des consommateurs, il Mais à voir. Il faut aller plus loin que ça pour voir si on nous a répercuté correctement. Maurice Ndione, du point de vue de, de l'analyse politique, de la science politique, cette annonce de baisse du prix de l'électricité au tout début d'une année qui commence, mais n'oublions pas aussi qu'on va vers des élections législatives dans sept mois. Analyse politique. Je vais d'abord commencer par euh, vous remercier d'avoir bien voulu euh, m'inviter, saluer également euh, mes co-débatteurs et saluer cette initiative qui participe euh, du débat démocratique, du, de la confrontation des idées et euh, des opinions des uns et des autres, ce qui est euh, tout à fait euh, positif. Je crois qu'aujourd'hui, l'annonce du président de la République faite de diminuer de 10% les factures, le, le, coût de l'électricité, me semble être une bonne nouvelle, puisque cela va alléger les souffrances des ménages sénégalais. et euh, cela peut être perçu comme un cadeau euh, de, de, fin d'année, mais je pense également qu'il faut apprécier la mesure à sa juste valeur et peut-être ce qui me préoccupe personnellement, c'est de voir mmh. est-ce qu'il y a eu effectivement une amélioration de la gestion Euh, de la Sénélec. Est-ce que les euh, difficultés structurelles de cette entreprise ont été surmontées ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu tout simplement une réduction drastique du prix du baril du pétrole sur le plan international qu'on a eu euh, ces, euh, ces, effets euh, positifs. Donc, entre... Le chef de l'État a parlé d'un exercice bénéficiaire depuis 2014 de, de Sénélec. oui je veux dire mais je, je parle des contraintes structurelles est-ce que les contraintes structurelles ont été effectivement levées ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une diminution drastique du prix du euh, pétrole qu'il y a eu justement euh, cette embellie au niveau de la gestion économique je oui. crois qu'il faut approfondir est-ce que c'est pas la juste question. conjoncturel ou exactement Très voilà bien. donc euh, mettre l'accent sur la dimension structurelle la viabilité mmh. de l'entreprise la Sénélec On a aussi beaucoup parlé de mix énergétique sans qu'on ne sache exactement où est-ce qu'on en est. Il y a eu certes les centrales de Bokol et de Malikunda qui ont été mises en œuvre, mais il faudrait qu'on essaie d'évaluer concrètement euh, quelle est l'ampleur, quelle est la portée de ces nouvelles formes de diversification des sources énergétiques au Sénégal et apprécier cela par rapport au panier euh, de la ménagère. Il faut également, euh, pour terminer, que l'on une évaluation correcte, pour voir exactement qu'est-ce que l'État a gagné et par rapport à ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a concédé aux consommateurs sénégalais et voir si ce qu'il a donné est effectivement euh, quelque chose d'appréciable du point de vue économique. Monsieur le ministre, ce que Maurice Dion dit est intéressant, surtout quand on met ça en relation avec euh, les déclarations du directeur général de la Sénèque hier seulement, Monsieur Mohamedou Martar Sissé, qui avait dit il ne faut pas qu'une éventuelle baisse du prix de l'électricité soit juste liée à une baisse du prix du baril de pétrole. Est-ce que cette baisse, elle est elle n'est pas tout simplement conjoncturelle. Autrement dit, demain, et si le prix du baril du pétrole remontait voilà. Je voudrais quand même euh, euh sacrifier à euh, une, euh, une tradition euh, oui. sur votre euh, ici antenne. Plateau, oui. Vous remercier. Il faut le dire, de l'organisation des débats que vous faites. Alors avec beaucoup de brio, en permettant à des Sénégalais de venir s'exprimer et d'éclairer, de les éclairer sur les grands enjeux. Et je pense que cela se fait de façon civilisée et cela se fait de manière, en tout cas, que je considère comme très positive. Quant à la question, effectivement, le directeur général a eu à revenir sur cette question. C'est précisément au moment où il était en train d'offrir à des populations qui n'ont jamais eu l'électricité, qui ont témoigné, qui étaient dans l'obscurité. L'électricité, c'est la vie. L'électricité, c'est on, on, recule tout à travers le, le village. La vie ne s'arrête plus à 18h, à 19h, c'est à minuit, c'est tout ton comportement, c'est tout ce qui change. C'est ça qui est important à travers cela. Ce n'est pas seulement euh, euh, quelque chose de conjoncturel, le cadeau. Il y a un processus. Et je pense qu'il faut comprendre l'action du président de la République. Et, et par euh, euh, cette baisse, et, et, préciser que lorsque la, le prix du pétrole était haut, il y a des péréquations. L'État, c'était des milliards aussi qu'il fallait maintenir, qu'il fallait en tout cas débourser pour maintenir alors euh, le prix et pour maintenir aussi le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc, à mon avis, il n'y a rien de conjoncturel. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, vient à son heure parce que la Sénélec est en position de restructuration et arrivée à un point où elle fait des bénéfices, où elle peut aller directement dans une politique sociale, pouvoir se délester de certaines de ses mains pour aller vers les Sénégalais les plus démunis. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et je pense qu'il faudrait le considérer à sa juste valeur. Chaque fois qu'il y a un effort qui est fait, il faut le saluer. il ne faudrait pas le minimiser. Ça rentre la bonne gestion, ça dans la prise en compte des difficultés des Sénégalais, de leurs demandes sociales. Et l'électricité est un je pense que saluons plutôt cette mesure, ne la, ne la décrédibilisons pas et la considérons pas quelque chose alors de faible. 30 milliards, c'est pas trop. Pour notre gouverne à tous, le cours du baril du, de pétrole en dollars au jour d'aujourd'hui est de Oui. Alors, si euh, demain, ce baril de pétrole euh, était à 100 dollars vous pouvez Alors, assurer aux Sénégalais qu'il n'y aura pas une augmentation du prix la, de l'électricité la, la, politique énergétique, oui. c'est précisément que le Sénégal ne dépend pas uniquement euh, de ces variations des prix du pétrole. C'est pour ça qu'il y a eu cette diversité, ce qu'on appelle le mix énergétique. Les centrales de Bakhol et même temps de Bakhol et en même temps de Malikunda, c'est une programmation. C'est demain le choix qui était fait sur le solaire. Et cela va continuer et cela nous permettra d'atteindre cette indépendance énergétique. Et ça nous permettra aussi, lorsque nous serons dans l'exploitation du gaz, alors de voir beaucoup plus loin et peut-être de diminuer davantage, non d'augmenter. Je pense que nous sommes sur une phase qui nous permettra en tout cas d'assurer notre indépendance à la fois énergétique et en même temps permettre aux Sénégalais d'avoir l'électricité à bas coût. Tafsir Thioye, baisse conjoncturelle ou structurelle ce que je dis sur cette question d'énergie, je le dis sur la base d'une connaissance de cause. J'ai avec moi le document de politique économique et sociale adopté en 2011, la période 2011-2015. Le mix énergétique dont il parle, ça est à la page à la page 21 du, document de politique et sociale. Nous avions déjà notre plan TACAL et aujourd'hui, ce qu'il exécute du point de vue de l'énergie, il n'y a rien d'autre que le plan TACAL. C'est la production et nous avons réussi à stabiliser la production. Les prévisions que nous, nous avions faites du point de vue de l'augmentation de la capacité de reproduction, c'est la, oui, voilà. construction de centrales. Ouais. Aujourd'hui, la centrale de Sendou 1, c'est nous, c'est pas vous. Sendou 2, c'était nous. Taïbendiaï, c'est nous. Fellou, c'est nous, avec l'hydroélectricité. Sambangalou, qui on est en train de préparer, c'est nous. Il n'y a aucune centrale. Et 200 MW d'énergie solaire étaient déjà prévus dans le document de politique économique et sociale qu'ils ont repris et qu'ils aujourd'hui qui nous disent. Donc quand je vous dis que cette baisse, c'est de la tromperie pour les Sénégalais, parce que nous avons un gouvernement arnaqueur, parce que nous avons un gouvernement à ses populations. Et Quand vous dites que vous baissez 10% sur le prix de l'électricité, nous, qu'est-ce que nous mettions sur l'électricité 120 milliards de compensation pour baisser, les, prix, pour les bloquer. milliards. Et aujourd'hui, ils l'ont diminué. Oui, c'est parce que quelque part, il n'y avait pas une gestion saine de la Sénélec aussi, non, On est bien d'accord Il y avait une gestion saine de la Sénélec. Et pourquoi vous, situation... mettez, mettiez milliards Mais c'est parce que le prix Alors... du soutenir cela et nous avons mis milliards aujourd'hui est-ce que milliards n'ont pas été enlevés ils les ont enlevés et nous nous étions dans une logique de même vendre de l'électricité toujours à l'étranger et aujourd'hui ils achètent aujourd'hui combien de mégawatts sur la Mauritanie 20 c'est structurel le pense pas et ils les investissements parce que KEPCO qui devait être sur Sendou sur 300 qu'est-ce que vous avez fait avec KEPCO vous vous l'avez fait fait et ils sont partis et c'était favoriser Africa Énergie dont on dit qu'il appartient, que cette société appartient aux gens de l'Égypte parce que c'est les mêmes investissements et aujourd'hui Africa Énergie depuis quand on a signé est-ce qu'ils vont mettre ils ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent ils étaient déjà novices dans le secteur nous nous étions déjà avec KEPCO qui est venu ici pour 300 sur Sendou et ça devrait nous permettre structurellement de stabiliser la production mais aujourd'hui on à mon sens, ça ne fait Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dérouler sur le plan de l'énergie, je vous dis, il n'y a pas une chose nouvelle qui n'est pas dans le qui n'est document de politique économique et sociale. Et vous pouvez déjà lire tout de suite, le document est là Donc, nous, ne disons pas des choses sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise. Quand nous disons que de baisse sur le prix de l'électricité, c'est insuffisant pour les Sénégalais la situation dans de la programmation du plan Dakar dans la production dans la stabilisation de l'approvisionnement en en en carburant et en pétrole en dans la gestion au niveau au niveau de la Sénélec qu'on devait assainir donc qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'ils dans ce qu'ils ont fait je ne le vois pas rien à part prendre l'argent des Sénégalais parce qu'aujourd'hui il y a tellement de taxes sur le pétrole et nous nous envisagions à l'époque avec la mise en place de, du fonds de stabilisation des importations des de permettre à ce que si le pétrole augmente sur le international, qu'on puisse stabiliser le prix. Mais aujourd'hui, la baisse elle est structurelle. Et ils ont dit dans le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle, et je vais montrer ça tout de suite, et dans le rapport économique et financier que la baisse du prix du pétrole va connaître un long moment. Ils l'ont reconnu dans le document. Et pourquoi aujourd'hui nous, nous à subir Et que a besoin d'argent, parce que qui permet à l'État du Sénégal d'avoir de l'argent, c'est sur le pétrole. Ils ont mis des surtaxes et au-delà des surtaxes, le fonds leur permet d'avoir de l'argent et c'est plus de 200 milliards que le gouvernement gagne sur le pétrole. Très et aujourd'hui, c'est ça qui fait que non seulement ils ont replié les 120 milliards que nous nous mettions sur, pour la compensation, mais deuxièmement, avec tout ce que nous avons fait en termes d'investissement et tout ce qui a, tout, tout ce qui a fait au, au niveau du pétrole, aujourd'hui, ils nous disent, ben écoutez, nous allons baisser de 10%. Ça ne peut pas sérieux. Très bien. Ablaï Villane. Tafsir Thioye oui. Mon ami Thioye, je crois que vous êtes un peu par rapport aux réalités du pays. je voudrais vous inviter avec moi, tous les Sénégalais qui nous suivent, je prends à témoin mes co-débatteurs. Rappelez-vous de la manière dont Abdoulaye Wade et son régime avaient géré la politique énergétique de ce pays. Rappelez-vous des ruptures de contrat de manière unilatérale qui nous ont valu des amendes et des sommes d'argent faramineuses qu'on a dû consentir pour continuer à assurer la fuite de l'électricité. Rappelez-vous de Copelec. De 2012 à maintenant, vous me dites, le prix de l'énergie, de l'électricité n'a pas baissé, cependant que le coût du baril a baissé au niveau international. Et pourtant, tout de suite, vous venez de dire en parlant de subventions de plus de 120 milliards que l'État du Sénégal mettait pour soutenir le, la Sénélec est permettre de fournir de l'électricité alors qu'on n'avait même pas d'électricité. C'était devenu un gouffre d'argent. Mais nous, depuis nous fournissons de l'électricité de façon meilleure que ce que vous avez fait. Mieux. Nous sommes en train de diversifier les sources d'énergie. Écoutez, Mais, monsieur Thioy, encore une fois de plus, l'État, la démocratie, la République, c'est la continuité de l'État et de l'administration. Abdoulaye Wade, devenu président en 2000, a surfé sur des projets, des programmes qui avaient été élaborés par le président Abdou Diouf, qui vous a laissé. Demain, qu'on le veuille pas, le président Macky quand il devra partir, ne serait que sous l'angle du PSE, mais il laissera encore à son remplaçant des éléments des projets, des programmes à partir desquels il va travailler. Mais nous, vous nous dites, tout ce que Macky Sall a réalisé, c'est nous. Nous qui Nous Sénégalais Ok. Mais vous, PDS, Parti démocratique sénégalais, Parti Daniel Sénégal, 5 Sénégal, vous osez aujourd'hui nous parler de comparaison et minimiser ce qui a été fait. Écoutez, vous dites tout à l'heure que c'est, il a fallu attendre 5 ans pour nous faire un discours plus long que ce à quoi on nous avait habitués cinq ans c'est le temps d'un mandat pour un mandat qui va durer sept ans cinq ans c'est raisonnablement le temps mais mais vraiment le mais temps on de pas n'a pas eu droit à un mandat de cinq ans malgré nous ah hmm. on a voulu eh, écoutez on se contente de ce qui est possible mais je dis nous en sommes au temps de l'évaluation C'est pourquoi ce discours de, qui, qui, intervient cinq ans après son élection ne pouvait pas être moins long que les discours antérieurs. Parce qu'aujourd'hui, nos actions sont visibles. Là où vous, êtes, vous en étiez à, ré, à, une réalisation, nous sommes aujourd'hui à 5, 6, 7, 7. Vous nous avez parlé tout de, de, taux de croissance. Mais à l'heure actuelle, le Sénégal qui est devenu un pays crédible, mais à engagé une, une, une, une, processus où au moins depuis jusqu'à d'ici 10 ans, on ne peut pas faire moins qu'un taux de croissance de plus de 6%. Et ça, nous le disons Très bien. de manière affirmative et les chiffres sont là, les éléments sont là. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que, que l'on dise, voici une bonne nouvelle, nous attendions plus, parce que nous pensions que c'est possible. Très Ce que là Sénélec, dans ses conditions actuelles, permet, si, si, si, si les réalités de la Sénélec ne permettaient pas au gouvernement, au président de prendre cette mesure, il n'aurait pas annoncé péremptoire. Ça a été étudié. Merci, Abdoulaye Wilane. Maître en, en écoutant Tafsir Thioye Abdoulaye Wilane, ces deux régimes qui, qui sont passés, et, euh, et l'autre remarque qu'on peut faire, c'est que entre le prix du baril de pétrole euh, aujourd'hui qui est de 53 euh, dollars point, point et celui donné tout à l'heure euh, par Tafsir Thioye 150 dollars à l'époque euh, il y a dollars de différence est-ce que vous craignez que cette baisse de pour cent du prix de l'électricité soit juste une baisse structurelle écoutez euh, <coughs> pense d'abord qu'il juste faut... une baisse conjoncturelle plutôt oui je, pense d'abord qu'il est très difficile de comparer les deux contextes la gouvernance d'Abdoulaye Wade avec les contraintes liées au niveau du prix du pétrole ne peut pas être euh, la même que la gouvernance du président Macky Sall avec les prix du pétrole à leur niveau actuel. Hmm. Comparaison n'est pas raison. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faut, qu'il faut relativiser. Euh, la question qui se pose, c'est que je pense que c'est au pouvoir public de nous dire. Moi, je ne peux pas me prononcer. C'est au pouvoir de nous dire quels sont, et comme le disait le professeur tout de suite, sur, sur quoi est fondée cette, cette baisse. C'est ça qui permet de savoir si c'est structurel ou si c'est conjoncturel. si c'est une simple répercussion de la baisse du prix du pétrole, il faut peut-être logiquement s'attendre, sauf en mettant en, en, en jeu les, les, mécanismes de péréquation, qui est l'augmentation trop importante du prix à l'international et un impact sur les prix. Mais moi, je pense qu'il faut euh, euh, euh, aller au-delà de ça, essayer d'aller plus loin dans l'analyse, parce que c'est très difficile ici, là, juste après son discours, d'avoir tous les éléments d'analyse. Il faut un peu de recul, voir qu'est-ce qui était possible qu'est-ce que l'État a gagné euh, euh, par rapport à la baisse du prix du pétrole Parce que c'est quand même un des éléments les plus importants, même si c'est vrai que quand les prix étaient élevés, l'État a fait jouer quand même des, des, des péréquations pour, pour éviter d'impacter le, le, le, prix de l'électricité, de faire supporter la totalité du prix de l'électricité, des augmentations aux, aux consommateurs. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas mécanique, ce n'est pas transparent. Je pense que sur ces questions-là, pour avoir une bonne appréciation, il aurait fallu qu'on ait un mécanisme transparent. On n'a pas de mécanisme transparent qui puisse permettre aux citoyens et aux consommateurs de lire régulièrement l'évolution des choses et de voir comment l'État applique sa politique en fonction de l'évolution des choses sur le plan économique. Mais euh, mon frère Ablaï Wilan a dit euh, tout à l'heure une chose qui est importante, parce que je pense qu'on ne va pas passer toute la soirée sur le, ouais, la baisse. Bien sûr, on va. <laughs> On hein, va parce qu'il euh, a dit lui-même, il a oui. dit que 5 ans, c'était un temps suffisant pour faire une évaluation. Ouais. Et de voir le déficit dans le discours, parce que c'est président de la République, il a le choix va nous Mais est-ce que par rapport aujourd'hui au, au, par rapport aujourd'hui à la situation des par rapport au point pris le pays en 2012, au point où il a porté en 2017, aux engagements qu'il a pris en 2012, à la situation en 2017, quelles ont été les évolutions significatives ou les manquements ou les déficits. Ça, je pense que globalement, c'est important de le dire. Parce que si on se colle, on reste euh, collé strictement au terme du discours, euh, bon, je ne pense pas que ce serait très intéressant pour les, les téléspectateurs. Parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées. Oui, ah, dire, oui allons-y. Dire, par exemple, je veux dire, quand mmh. le président de la République, je donne quelques exemples, qu'est-ce qui préoccupe les Sénégalais C'est la santé. c'est l'éducation, c'est la sécurité. Mm -hmm. Il y a eu un, un important en 2000, On a dit aux Sénégalais, quand on leur a présenté le référendum, que leur vie allait changer quand on aura voté oui. Quelle évaluation le président a fait de la mise en œuvre de, de ce qui a été voté, des, réformes, je dire des réformettes C'était quand même important. C'est le moment institutionnellement le plus important de l'année 2016. Et c'était son initiative. Et il nous avait promis que tout allait changer derrière ça, qualitativement. Ça aurait été intéressant que le président qui avait pris cette initiative nous donne des éléments de mesure, des avancées qui résulteraient de, de l'application des réformes. Ça, c'est quand même important. Donc je disais éducation, santé, sécurité, Nous n'avons pas des réponses rassurantes. Évidemment, il ne peut pas Parce qu'il dit en éducation, nous allons faire une politique de résorption des abris provisoires. Nous allons, euh, j'ai pris quelques notes ici, euh, 9747 professeurs et maîtres, maîtres contractuels ont été recrutés. Oui. 89, 89 milliards

J'en suis sorti meurtri. C'était sur, la, sur le cancer. Il dit qu'ils sont obligés, dans, dans les structures hospitalières de, hospitalières de référence en matière de cancer, de modifier la, les, les, les, le protocole thérapeutique parce qu'il manque d'escalier. Et tout ça, on doit le rapprocher à, à, à autre chose. C'est le choix des investissements. Parce qu'on nous dit tout ça, on dépense beaucoup d'argent. on nous a parlé du TER. du train express régional. 568 milliards 568 milliards. Ouais. Est-ce que c'était une priorité par rapport à ces urgences-là mm. Donc la des investissements dont le président a parlé, c'est bien. Est-ce qu'on ce qu'on est qu'on qu dépense conformément au principe d'efficience, c'est-à-dire obtenir un résultat avec le moins de ressources possible par rapport aux exigences et sur, euh, euh, relativement à leur, aux demandes fondamentales que j'ai citées tout à l'heure. Maurice Ndion, alors, euh, un instant une, euh, une connotation électorale, voire message à la nation du de l'État Oui, pense que les connotations d'ordre électoraliste, d'ordre politique de message de cette nature, puisque c'est aussi, comme vous l'avez, comme on l'a tous suivi, un moment où le président de la République fait un peu son bilan pour voir ce qui a été fait, eh, pour mettre en avant ses réalisations sur le plan de la santé, de l'éducation, euh, de la sécurité et des problèmes du pays et comment il essaie de prendre à bras le corps ces problèmes-là. Donc c'est forcément un moment aussi de rendre compte, un moment d'information, un moment de restitution. Donc forcément, il y a une dimension politique et une dimension électoraliste. Mais ce qui me semble important, c'est de voir par rapport à ce que dit le président de la République, qu'est-ce qui est aujourd'hui... Euh, Euh, qu'est-ce qu'il possible d'améliorer, quelles sont les limites, quelles sont les je pense que c'est là où véritablement le euh, à mon sens. On a beaucoup parlé du TER euh, de 568 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, pose un problème de fond sur euh, l'aménagement du parce que créer une excroissance on est en train de différer les problèmes sur plusieurs années. Or, le vrai problème aujourd'hui, c'est de créer des villes euh, secondaires euh, dans les régions pour pouvoir euh, avoir des effets de rétention par rapport à l'exode rural créer de la richesse là où il y a de la pauvreté et diversifier les pôles économiques pour pouvoir stabiliser les populations là où elles sont et qu'elles puissent véritablement euh, bénéficier des retombées de la croissance économique et que cette croissance-là puisse avoir euh, des effets d'entraînement, des effets euh, d'interaction par rapport aux divers secteurs économiques d'une part et par rapport aux divers, euh, aux divers Donc une dimension de, euh, de territorialisation et une dimension euh, sociale de solidarité, de redistribution des richesses produites. Donc ça, c'est des questions de fond qui n'ont pas été euh, soulevées. On aurait dû aussi parler du secteur euh, du tourisme, qui est un secteur complètement en lambeaux. Euh, rien là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer ce secteur-là On aurait pu également euh, dire, euh, parler un peu de la situation euh, des universités. Nous avons euh, l'université Amadou Maktambo qui devait depuis plusieurs années qu'on nous l'annonce. On met, on, on met 4 ans ou plus à construire une université, alors que le centre international Abdou Diouf de Djamnadjou a été construit en 9 mois. Est-ce que c'était une priorité par rapport à, aux infrastructures universitaires, pendant que les nouveaux bacheliers ne sont pas orientés, pendant que les universités croulent sous le poids des effectifs pléthoriques et que le système devient complètement invivable Toutes ces questions de fond-là, tous ces arbitrages, toutes ces priorités, me semble-t-il, auraient pu être développées. Tafsir Thioy, sur les infrastructures, parce qu'il y a beaucoup de sujets, on ne peut pas aborder tous les sujets dans le cadre de ce débat, sur les infrastructures, dans le sillage que viennent de dire Maître Mamad Amagé et professeur Maurice Dion. Le président en a parlé en disant qu'il a inauguré au cours de l'année 2016 le deuxième tronçon euh, de l'autoroute à, à, à, péage, euh, qu'il y a également Euh, euh, sur le plan des infrastructures, euh, la, la, construction de, du TER. Est-ce que vous pensez que sur ce thème des infrastructures, le président Macky Sall est sur la bonne voie moi, c'est vrai que la façon avec laquelle vous avez abordé le débat, c'est à vous de le choisir. Euh, mais je voulais dire que nous avons un problème

Aujourd'hui, ce pays-là, lorsqu'on laissait le pays ici, à Macky Sall, on était à un niveau d'endettement qui n'était pas, qui n'atteignait pas 40%. Le budget du Sénégal, nous l'avons presque quadruplé en, 2000, entre, en 12 ans. Donc, nous, nous savons ce que nous avons fait. Et tout ce que vous êtes en train de faire, je vous ai défié, tout ce que vous êtes en train de faire, je ne vois pas une seule idée nouvelle. À part le TR, et ce nous, nous pensions, nous, oui. nous D'où ma question nous sur parlions, les infrastructures routières, autoroutières, comme sur le TER. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. il essayait de réinventer la roue. Mamadou Ibra Kane, comment vous pouvez imaginer, dans un État le Sénégal, avec toutes les difficultés qu'ils ont répertoriées dans le plan Sénégal émergent, qu'on mette de train, alors qu'on nous avait prévu quoi Dans le PTIP 2015-2017, très rapide, c'est nous, c'est le projet de Karim Wade sur l'AIBD. Après, ils reviennent pour nous parler de train express avec 395 milliards. Après, on nous annonce 415 milliards. Aujourd'hui, c'est 568 milliards pour sauver qui Alsom, qui était dans des difficultés. Je ne pense pas que cela soit sérieux. Vous dans des conditions nébuleuses. Ça

Pour faire quoi Pour faire des TR et sauver Al-Stop. Ça ne fait pas sérieux. Et ça, j'en appelle à M. le Président Macky qu'il n'accepte pas qu'on le mette dans cette voie. Sur la dette, le chiffre quand même, le dernier qu'on a vu, c'est 4 700 milliards. Vous si... vous voulez, vous pouvez le contester, mais le dernier chiffre, c'est 4 mm. qui est là avec moi, et aujourd'hui, le plus dangereux,

Ils avaient pensé pouvoir faire 3,5 4, 4 Finalement, ils ont dit qu'ils ont En ils ont eu Et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un ministre conteste les chiffres de la LSD publiquement. Ça fait pas deuxièmement, en ils ont fait, 2014, euh, euh, ils ont fait

Et, et, pourtant, la Banque mondiale et le FMI ont confirmé ce taux de croissance. Ils ne donnent pas de chiffres, que nous leur donnons. C'est Amadouba qui leur donne le ministre de C'est le ministre de l'économie et des Finances, je oui. le défie ici encore une fois. Oui. Tout ce qu'il donne comme chiffres, ce pas vrai. Sur l'argent de... Et je vais vous donner la preuve. Il dit qu'ils ont pris milliards de la traque des biens C'est faux. Ils n'ont pas ça. C'est faux, s'il me montre un seul franc provenant de la traque des biens acquis dans le budget du Sénégal j'arrêterai de faire la politique s'il le montre un seul franc provenant de l'argent de la traque des biens mal dans le budget du Sénégal je démissionne en politique et je monsieur le ministre de la justice est là monsieur le ministre de la justice je voudrais parler de l'ensemble des éléments vous savez oui. ne rentrons pas dans des débats qui euh, euh, où l'on cherche plutôt à, à, faire du sensationnel sur les chiffres. Chacun peut exhiber les chiffres qu'il veut. Je ne suis pas dans, je ne suis pas dans ce type de débat. Mais le plus important, c'est qu'il faudrait retenir. Et je ne voudrais pas aussi être là à dire ce que l'agent judiciaire de l'État aura l'occasion de préciser. Si l'on dit que les 50 milliards n'existent pas, ce n'est pas le seul chiffre Le recouvrement qui est en train de se faire, se fait à travers le monde. Et ce n'est pas facile la coopération entre les États. Pour le recouvrement des sommes, vous avez pu voir s'il y a le scandale du, du Panama Paper, si vous avez vu le scandale eh, qui a conduit même dans une certaine mesure, alors euh, le Premier ministre anglais à partir, c'est pas seulement le Brexit, mais c'est ce qui se passe dans les îles Vierges et ailleurs. J'étais à Londres à la conférence sur la corruption où des engagements internationaux ont, eu, ont été pris

Dans les dernières condamnations qu'il y a eu, aussi, ce qui fait 47. Et il y a aussi, en ce qui concerne euh, à l'heure actuelle, euh, des sociétés qui ont euh, donc, euh, parce qu'il y a eu une saisie et sont tombées dans le patrimoine de l'État, alors de 8 milliards. Et de aussi, et les biens immobiliers de certains, donc, personnes qui étaient poursuivies aussi qui sont là. Ça fait nettement un peu plus que cela. Mais je ne veux pas qu'on rentre dans le débat des chiffres. Cela est une certitude qui peut être donc... Euh, sur, donc euh, sur les la Touba, alors qu'il y a et dans des conditions nébuleuses le dit, si nous en sommes là à faire les éloges du plan Takal, mais c'est les Sénégalais, on peut se dire qu'on est brillant, qu'on est les meilleurs sur tous les plans. Mais c'est le peuple souverain qui décide. Et il a dit que ce plan-là est désastreux. Parce qu'il l'a vécu. Et nous l'avons vécu. Le petit tailleur, mais aussi le coiffeur de son gagne-pain, qui reste deux jours, trois jours sans courant, ou pendant l'hôpital, des gens qui mouraient, des enfants qui sont Nous avons ce souvenir-là, ne le réveillons pas. Le peuple a déjà tranché. Laissons Takal derrière, avec euh, tout ce qu'il y a eu comme derrière, derrière avec l'utilisation de ce qu'on a pu importer d'une façon... Euh, donc, euh, euh c'est, c'est, euh, euh, toutes ces choses qui sont, sur lesquelles je ne veux pas revenir. Moi, je voudrais être concret. Je voudrais m'en tenir à ce qui a été dit et apporter les réponses que nous avons faites. Le train express, on a dit qu'il y a pas mal de jeux, des idées géniales. Le Sénégal les a rejetées. Ce que nous rejetons, ce nous faisons aujourd'hui, il est curieux et même quelquefois insultant pour certaines grandes sociétés. Quand on voit les chiffres d'affaires euh, Thomson pour dire que 220 millions d'euros, 568 milliards, que c'est ça qui tient. Mais sautons réellement comment fonctionnent ces sociétés internationales, ces multinationales. Comment peut-on remettre en question le choix Mais les États-Unis ont eu à le faire. Thomson, c'est ce qui a été choisi, c'est le meilleur euh, sur le plan de la construction des, des, des trains. Al Alstom. Alstom. Alstom. pardon. Oui. Alstom, oui. le meilleur sur le plan de la construction des, des trains. Si les États-Unis le font, nous le prenons parce que c'est la première puissance du monde et que du point de vue de la technologie, ils sont en pointe et que si malgré tout ça, ils ont, ils ont eu à recourir à la même société, c'est qu'elle a l'expertise avérée. Les choix d'aménagement du territoire, on en a fait. On a débattu ici pourquoi 14 kilomètres sur la corniche. On a débattu pourquoi ce choix alors euh, de de d'autoroute qui a été fait. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était un aménagement. C'était la priorité du gouvernement du moment. La priorité actuelle, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Les idées, elles sont construites, elles sont réalisées par des gouvernements successifs. On ne peut pas toujours tirer la couverture à soi. Le Parti socialiste a eu à faire ce qu'il Parti démocrate a eu la continuité de l'État, c'est précisément d'achever les projets que les autres ont faits, mais aussi de construire ses propres projets. Le PSE a défini l'axe sur lequel le président Macky Sall voudrait orienter le, euh, le mandat qui lui a été confié par le peuple sénégalais. On en connaît les trois axes. L'aménagement, le train express. Donnons quelques éléments. On vient de voir qu'il y a près de 500 morts sur la route. C'est terrible. Il n'y a pas une réponse à donner. On vient de constater aussi Quand on a démantelé le train express Dakar-Bamako, qui existait depuis 1800, et que les, la catastrophe que ça a entraîné, parce qu'il y a une économie du rail qui a totalement disparu, alors qu'en Europe, alors que dans tous les pays, alors euh, on met la concurrence entre l'autoroute avec les, les ferroviaires, c'est le Sénégal qui a perdu. Aujourd'hui, le choix du TR, c'est un premier élément pour aller, c'est pas seulement s'arrêter à, alors donc, euh, à Blaisagne, c'est l'ensemble du territoire national parce que

dans d'ici 2035. C'est 8 non, millions d'habitants. Ma, ma, question c'est est-ce qu'avec 8 millions d'habitants, comment milliards, il de fer au Sénégal. Mais c'est ce qui va se oui, faire. Oui. Parce qu'il y de fer jusqu'à Tambacounda. de, euh, l'ensemble de toutes les zones Je pense que l'heure actuelle... Et n'oublions pas financement-là, c'est un financement avec la BID. c'est un financement avec la BAD, c'est un financement avec l'AFD, c'est un financement avec l'État du Sénégal qui a été validé sur le plan international parce qu'on sait qu'il y a de la pertinence dans ce projet. Très bien. Et ensuite, maintenant, il faudrait dire, quand on dit que la croissance et que c'est du vent, alors vous devons dire que toutes ces institutions qui nous donnent de l'argent ont si peur du Sénégal qu'ils vont attester et valider qu'il est bien vrai qu'il y a trois pays au Sénégal qui ont des, euh, en Afrique qui ont eu plus de 6%. C'est bien Oui. Ce qui a été dit, et c'est cela la vérité. Le démantèlement du rail, c'est une grosse pierre dans votre jardin, jardin en tant que socialiste. Oui, hein. oui. On, a, on a vécu la crise du rail sous le régime du Parti socialiste. Mais, mais au-delà cela, de cela, là, sur les infrastructures, est-ce que le choix du gouvernement actuel est le bon choix au vu des de l'argent quand même, c'est de, des, des, des, sommes importantes qui sont, qui sont dépassées, dépensées. En termes d'aménagement du territoire, là où le, le bon choix. Alors, permettez-moi de vous rappeler oui. quel est Sénégal a décidé de, mettre, de lancer le TR. Ça va se dérouler sur 55 km. Et les 36 km vont coûter pour assurer pour améliorer la mobilité urbaine et assurer la connexion entre la ville de Dakar la ville de la, la, le futur pôle urbain de Diamniadio et plus tard l'aéroport Blaise Diagne mais toute cette population du Sénégal qui a qui qui augmente à un, à un rythme exponentiel aujourd'hui nous sommes 14 mais dans dans 10 ans nous serons combien dans 20 ans nous serons combien avec ce TER le président Macky Sall est en train de révolutionner ce pays, est en train travailler pour les générations futures. Il est en train de donner une réponse actuelle à des questions ultérieures. Mais nous ne nous limitons pas seulement à cela. Vous parliez tout à l'heure du train Dakar-Bamako. Pour ce qui nous concerne en tant que Sénégal, de Dakar à Tambacounda, c'est soit 460 km. Nous envisageons de remettre à neuf ce chemin de fer. Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous avons au total l'ambition de réaliser 3000 kilomètres de chemin de fer. Et après, de Tambacounda jusqu'à Ziguinchor, en desservant toute la Casamance, nous allons développer le chemin de fer. Et nous n'oublions pas, de Dakar à Saint-Louis, et peut-être même jusqu'à Matam. Si notre option n'est pas la meilleure, elle est au moins meilleure que celle qu'Abdoulaye Wade nous avait léguée. Ne serait-ce que de ce point de vue, en matière d'infrastructure, ce qu'on est en de faire dépasse de loin ce qui est vu en Afrique et le train le TER que nous avons. qui nous vous les ou vous Benno je suis le porte-parole du parti socialiste. oui mais nous sommes aux responsabilités et nous entendons assumer pleinement notre posture notre engagement. nous avons fait tomber avec d'autres forces politiques autour de Macky Sall la gouvernance toxique et nocive d'Ablaye Wade pour remplacer ça par une gouvernance meilleure et tout le monde s'en rend donc je ne peux pas ne pas assumer en disant nous du régime de notre coalition Benno Bokk Yakaar maintenant tout à l'heure le professeur le mon ami mon aîné maître euh, nous a interpellé sur quatre sujets la sécurité l'éducation je voudrais parler quand même de l'éducation monsieur le professeur euh, cher cher cher vous nous demandez de vous dire exactement ce que nous envisageons de faire faire euh, éviter que notre pays continue à avoir des, des, des abris provisoires Eh bien, je vous dis, c'est très simple. Nous avons, un programme précis qui va nous permettre de, réserver, de résorber euh, plus de 6604, 6600 salles de classe. Nous allons... Ce qui a été résorbé depuis 2012. écoutez, ça, je pense que... C'est important. Oui, mais attendez, Vous n'avez pas en face de vous le de l'Éducation nationale. Non, non, je, pensais que vous aviez les chiffres. chiffres. je, vous dis. Oui, il vous interpelle. Vous, vous, interpellé, je vous dis. Mhm. Je ne pas vous dire exactement, parce que je ne suis pas du ministère de l'Éducation nationale. Mais je vous dis ce que nous envisageons de faire. Nous l'avons commencé. Si je vous allez poser cette question-là, peut-être que j'aurais interpellé le secrétaire mais ça c'est ça ne peut pas faire l'objet de de de de. non c'est ça qui nous permet de savoir. ça mais justement alors je vous dis simplement que en tout cas si vous allez à Kaffrine que je connais bien vous verrez qu'il y a un BST qui a été réalisé. un B. un BST bloc certificat technique. ok vous allez vous, vous verrez qu'il y a un CRFP qui a été réalisé. ça là peut être inauguré dès le mois de janvier et ça ne servit pas à cela. nous avons d'autres établissements en termes de lycées et collèges qui sont réalisés je ne vous parle même pas du département de Kaffrine je vous parle de la commune de Kaffrine que je dont, dont je le maire alors je pose la question à monsieur Thioye et je vous invite à poser la question à tous vos amis que vous avez eus et qui ont soutenu Ablaye Wade qu'est-ce qu'Ablaye Wade a réalisé à Kaffrine pendant 12 ans mais n'a pas fait 5 ans il a fait ça à Kaffrine et il, il envisage vous de réaliser un hôpital de 150 lits. Il vient de l'annoncer. 150 lits, nous en avons besoin. C'est pas quelque chose, cela. Très bien. On ne l'a pas eu pendant, pendant le règne d'Abdoulaye Wade. Très bien. Plusieurs, plusieurs questions à la fois, M. Mamadamagé. On est obligé quand même de procéder un peu par étapes, mais sur les infrastructures, qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel par rapport à, à sa politique Pour moi, il faut analyser la question de l'efficience. nous tous, Sénégalais, aimerions avoir les meilleures technologies possibles sur toute l'étendue du territoire. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est prioritaire Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on a un budget de 3 000 milliards, il est raisonnable de consacrer un sixième du budget national à un train express de, sur 57 km Mais ce n'est pas le budget Non, attendez, je pas dit ça. Je parle de ah consacrer l'équivalent un sixième du budget national. Mais si nous sommes c'est pour, c'est, être... c'est, c'est pas la question. La question, c'est la, la proportion. Avec l'ensemble des questions qui nous interpellent, est-ce qu'on peut consacrer à ce projet-là, vu sa portée, un sixième du budget national C'est ça la, la, la question. La question de l'efficience. Aujourd'hui, le transport est important, notamment pour la région de Dakar, la banlieue, c'est très important. Nous avons aujourd'hui un, un, système qui marche à peu près bien, qu'on aurait parfaitement pu améliorer de manière très sensible. C'est le petit train bleu. Le petit train bleu transporte beaucoup de nos parents de la banlieue. Donc on aurait pu l'améliorer très sensiblement. Parce qu'en termes de technologie, entre la technologie du petit train de banlieue et la technologie du TER, mais entre les deux, il y a une multitude d'options qui auraient pu permettre de lier l'efficacité, c'est-à-dire atteindre les objectifs avec le moins de ressources possible. Parce qu'en termes de priorité, de monsieur durée. le ministre, attendez, je, oui, je, monsieur, le ministre, monsieur le ministre l'a dit, oui. parce que important, lui il est de Tambacounda. Aujourd'hui, la question prioritaire, c'est la réhabilitation de cet axe qui, est, qui nous lie à la sous-région en termes d'intégration. Parce que notre pays est excentré Ça par rapport à la sous-région. j'ai dit c'est une question de priorité. On nous avait annoncé une discussion pour investir 750 milliards, je crois, pour la réhabilitation de ces taxes Dakar-Tambacounda-Bamako. C'est plus urgent que ça. C'est la question. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de dépenser pour dépenser, c'est de bien dépenser. Aujourd'hui, on constate une mal-dépense. Je vais vous donner juste un exemple. On vient de consacrer la cité de, de, de, de des après avoir consacré 30 milliards à la réhabilitation du building administratif Vous trouvez que c'est bien dépensé, ça C'est ça, les, ça les bonnes questions. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de la, la cité ministérielle, vous voulez dire. Oui, oui de la croissance. Hmm. Le président a parlé de deux choses en termes économiques pour nous dire que tout va bien. Inflation maîtrisée à croissance à moins de 6,7%. Oui. Et c'est très bien. Mais il y a d'autres paramètres qui sont très pertinents sur, dont le président de la République n'a pas parlé. L'indice, l'indice, l'IDP, l'IDH, pardon, mmh. l'indice de développement, de, de, de, développement humain. Ça, c'est des critères importants parce que cet indice est calculé à partir d'un certain nombre de critères qui rejoignent parfaitement à ce que je dis, disais tout à l'heure. C'est la question, c'est la, c'est, c'est la santé, c'est l'éducation. Ce sont ces, ces indices, ces, euh, ce sont ces éléments qui permettent de calculer un indice composite qui donne un classement. Notre pays est classé au dernier de développement humain, à dire impacte le quotidien des Sénégalais tous les jours. Mais c'est quand normal que le président de la République, en appréciant la situation, aussi, nous aussi qu'est-ce qu'il pour combler tous les déficits constatés. Et sur la question de l'économie, moi je ne suis pas économiste, je ne juge pas. Mais je, respecte l'expertise. Malgré tout ce qu'on dit de l'économie, les experts, qu'est-ce qu'ils disent Le professeur Amadou Alimbay, économiste, émérite, mais malgré tout ce qu'on dit, dit que le, la situation du Sénégal sur le plan économique n'a jamais été aussi fragile. C'est le diagnostic d'un expert. Moi, je ne suis pas un expert économiste. Le, le professeur la même chose du PS. E. donc je pense que. qu'entend qu'entend-il par fragilité. selon vous moi je je vous donne ce qu'il dit. oui je ne vais pas interpréter ce qu'il dit. sur la base de toutes les données publiques il dit que la situation de notre pays n'a jamais été aussi fragile. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les critères qu'on prend pour dire que la situation est solide Mais vous n'êtes pas un économiste, mais quand même, je peux vous poser une question, s'il vous plaît, pour, la clarté du débat. Euh, fragile peut-il attirer des investisseurs comme ceux qui ont mis leur denier dans la réalisation de TER comment est-ce qu'un pays à l'économie fragile peut être accompagné par les pays qui sont engagés avec nous dans le cadre du PSE Abdoulaye Wilane laissez-le poursuivre oui question on vous savez dans quel pays il y a le plus gros la RDC est en état de guerre. Ça ne veut rien dire, le fait que les investisseurs viennent. Ça ne veut rien dire. Il y a des pays en état de guerre où vont les investisseurs. Ce n'est pas un indicateur. Ce n'est pas un indicateur. Donc, il ne faut pas dire c'est parce que les gens viennent, c'est parce que les gens nous prêtent de l'argent. Quand, je vais vous dire, moi je travaille sur des dossiers de, projet, de, de, de financement de projet. On peut vous prêter de l'argent quand, quand vous avez les garanties. On ne vous prête pas de l'argent comme ça. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a une chose qui est vraie. Le Sénégal a une certaine qualité de signature. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que l'économie va très bien. Il ne faut pas faire ces liens-là. Moi, je vous donne un diagnostic d'un économiste. Et ce sont des questions importantes. Quand on donne des éléments, il faut tout donner. Le président veut nous donner une description de la situation économique. Il nous parle de l'inflation et de la croissance. Je dis qu'on nous parle aussi de l'indice de développement humain. qui est aussi un autre élément important et qui impacte plus le quotidien des Sénégalais que le taux de croissance et le taux de l'inflation. Professeur euh, John, vous avez le moins parlé. <laughs> Euh, on va quand même essayer de rattraper tout ça. Euh, mais sur la question des infrastructures, qui a aussi un volet éducation quelque part. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'université euh, Amadou Mahtar Mbow qui aurait pu être euh, construite depuis très longtemps au lieu, par exemple, de construire le centre de conférence euh, à, à Abdou Diouf. Mais Et le président a parlé de mutations nécessaires dans le domaine de l'éducation. Quel entendement vous en avez Oui, je pense d'abord qu'il faut euh, dire que sur le plan de, de l'investissement, euh, il y a deux, deux, deux conditions euh, pour euh, attirer les investisseurs, c'est la sécurité et le rendement. Et de ce point de vue-là, la stabilité politique du Sénégal est... Euh, Euh, est une, est une condition, en tout cas, euh, facilite la venue des, des investisseurs. Il faut également dire que sur le plan économique. Généralement, on apprécie l'économie à travers euh, quatre euh, éléments essentiels que les économistes appellent le carré magique, c'est-à-dire la croissance euh, économique, l'inflation, la balance extérieure et l'emploi. Alors par rapport à ces éléments-là, on n'a pas euh, beaucoup euh, d'éléments d'appréciation. On a comme l'impression que on nous donne un peu ce qui a été fait en plus, les nombres d'emplois créés, le nombre de... Euh, Euh, d'hôpitaux. Euh, c'est pas mauvais, mais je pense qu'on aurait pu en tout cas avoir d'autres moyens d'apprécier la gouvernance démocratique par rapport à ce qui se fait concrètement. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, est-ce que les Sénégalais sont mieux soignés Est-ce qu'ils sont mieux euh, est-ce qu'ils sont bien accueillis Est-ce que euh, l'accessibilité des soins est une réalité Est-ce que l'accessibilité aux médicaments est une réalité Ça, c'est des questions de fond que l'on évacue trop facilement en mm. disant qu'on a créé trois ou quatre hôpitaux en plus. Et cela euh, masque euh, des débats qui me semblent extrêmement intéressants. Sur le plan de l'emploi également, il y a une, une, une jeunesse qui est euh, désœuvrée, il y a une crise du système éducatif, il y a une crise de la formation, une crise de l'éducation et tout cela, on ne voit pas clairement les articulations que le gouvernement propose pour régler ce problème, surtout dans un contexte marqué euh, par euh, les problématiques sécuritaires qui deviennent de plus en plus dérimantes. Surtout également, on a beaucoup parlé de la question de la pauvreté. Je pense qu'il faut euh, réfléchir par rapport à cela en termes euh, plus Euh, plus englobant, euh, puisque la pauvreté, c'est un, une fragilité qui expose, qui entraîne des situations euh, difficile du point de vue sécuritaire, du point de vue de l'emploi et du point de vue euh, de les, euh, de toutes les instances de la vie sociale. Donc là, c'est des questions également qu'il faut, euh, mettre en avant et euh, dire aussi que sur le plan euh, de l'agriculture, un autre secteur qui n'a pas été aussi, c'est le, le, le, secteur de la pêche. On nous dit juste qu'il y a eu des quais de pêche qui ont été inaugurés, on, on, etc. On dira un mot sur l'agriculture parce qu'il y a des chiffres donnés par le président de la République, les mutations qui s'imposent dans l'éducation, le secteur de l'éducation, puisque vous êtes un professeur, un enseignant, mm. euh, qu que, quel, quel, entendement vous en avez Les mutations, je pense qu'on est, on est aujourd'hui dans une sorte de pilotage à vue du secteur. Il y a, on a comme l'impression que le gouvernement est débordé par la complexité euh, la gravité des problèmes et on gère l'urgence, on fait du colmatage sans cesse. Et il faut à un certain moment qu'on arrête de faire du colmatage et qu'il y ait véritablement une volonté politique, qu'il y ait effectivement un cadrage. Un cadrage, c'est de dire, voilà, nous avons tant d'étudiants aujourd'hui, euh, combien d'étudiants nous devrons avoir dans quelques années, etc. Et si on voit bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a multiplié au Sénégal les lycées sans euh, adapter l'offre en termes de formation professionnelle. Et on a attendu que le problème soit là pour qu'on le constate et on s'est retrouvé dans une incapacité à le régler parce que le régler supposait euh, de prendre en compte des contraintes structurelles, contraintes qu'on ne peut pas euh, prendre en euh, compte effectivement, efficacement dans le court terme et euh, cela pose énormément de, de difficultés, je crois. Tafsir Choi, puisque vous aimez bien les chiffres, euh, euh, le chef de l'État parle d'une autosuffisance alimentaire. euh, qui devrait être atteinte euh, en 2017. Euh, il parle de, de, de plus de 2 247 000 tonnes de céréales euh, produites euh, cette année, de 997 000 tonnes euh, d'arachide, euh, même s'il reconnaît qu'il y a un recul hein, à, à, à, contre 1 million 50 000 tonnes, par exemple, en 2015. Commentaire de le Président de et quand je lui dis parfois grand gars yi dañu lay nax ce que les gens pensent c'est que dama koy offenser non je lui dis la vérité tout ce qu'on lui donne comme chiffre je peux vous jurer ma main sur le Coran ce n'est pas vrai la plupart des chiffres qu'on lui donne imaginez aujourd'hui la dernière fois monsieur le président nous a annoncé combien de combien dans son discours de l'année dernière il ne nous a pas parlé de 2 millions 200 000 tonnes de céréales il ne nous a pas parlé de 1 million 120 millions de 120 000 tonnes de d'arachide

Les Sénégalais se sont mobilisés pour donner le pouvoir au président Macky Sall. Ce qu'ils attendaient de lui, c'est qu'au moins ce qu'il avait promis, cette gestion-là vertueuse, qu'on puisse l'avoir. Mais aujourd'hui, aucun des chiffres qu'on lui donne sur l'agriculture, sur la croissance, je défie le ministre de l'Agriculture, je défie le ministre de l'Économie et des Finances. Ce n'est pas vrai. Et c'est leur document qui dit cela le document de programmation budgétaire économique. Si on vous

Et finalement, c'est 200 000 tonnes qui vont un peu euh, diminuer des importations. Est-ce que c'est cohérent, Ce n'est pas cohérent et ce n'est pas juste. Ils n'ont pas le droit de nous donner des faux chiffres. C'est la Constitution, qui nous garantit le droit à l'information. Mais s'il vous plaît, on vous a donné notre pays pour que vous le gouverniez. Et la façon dans laquelle vous gouvernez le pays, moi, je le Président de la République n'a pas parlé dans son discours il n'a pas parlé des universités de Diamniadio ni de de Kaolack pourquoi parce qu'il a trouvé deux projets ici l'université de Diamniadio c'est nous l'université de Kaolack c'est nous on a trouvé des financements de 14 milliards pour l'université de Diamniadio il vient pour dire je vais mettre 65 milliards milliards sur sur sur au jour je vous parle rien Mais à la, à la place de l'université du futur africain cher à Maître Abdoulaye Wade, il va ériger l'Institut national du pétrole et du gaz. Et ça fait pas sérieux ça? Ah oui? Parce que l'université du futur africain, son modèle de financement, c'est quoi? Est-ce que vous le connaissez? C'est des pays étrangers qui ont mis leur argent là-bas, le roi du Maroc, d'autres présidents, et on leur a confié des amphithéâtres. Et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? que l'université qu'on devait construire, on vit maintenant, maintenant un institut. Que l'État sénégalais a changé d'option. Non, ce n'est pas ce sérieux. Pas possible. ne suis pas d'accord. <laughs> oui, de oui, le faire Oui, je Non, c'est possible de le Avec Oui, mais ce pas respectable pour les gens. parce que euh, ça, peut tourner à l'arnaque. s'il vous plaît. il n'a pas parlé de rationalisation des dépenses publiques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les dépenses courantes ont atteint un niveau de milliards. Je pèse

Euh, de l'arachide. Mais il précise qu'il y a 5% de moins par rapport à l'année dernière. Mais on pensait que tout cela, les 1 million de tonnes qu'on pouvait l'atteindre qu'à partir de 2017-2018, ça a été réalisé en C'est ça la performance. il faudrait aussi rappeler, beaucoup de choses ont été dites et il faudrait que je Quand on parle de la pertinence du projet de Djamniado, je pense c'est une idée géniale. Il faudrait aussi retenir que à l'époque, pendant la colonisation. Quand Pékin a été créé, c'était une cité dortoir. Mais Diamniadio, c'est à la fois une ville moderne, une ville industrielle, une ville administrative, mais une ville avec des activités, mais aussi une cité du savoir, un lieu de savoir. Ça n'a rien à voir comme une annexe de Dakar. C'est une vraie ville et il faudrait en voir les projets. Il faudra en parler de façon évasive. il faut les étudier, il faut le voir, il faut regarder de quelle manière la carte a été faite, il faudrait voir l'aménagement pour se rendre compte que c'est un projet majeur. Maître Mawaraba Gueye relève un problème de cohérence en disant pourquoi réhabiliter le building administratif à hauteur de 30 milliards, c'est le chiffre qu'il a donné. On aimerait bien d'ailleurs être édifié sur ce que ce building va nous coûter et envisager ou même se mettre à construire une cité ministérielle à Diamniadio. La cité ministérielle, il faudrait le savoir. Il y aura 15 ministères qui seront dans la cité à Diamniadio. Le choix, c'était de dire un building historique qui a été le siège du gouvernement de l'AOF et qui était en train de s'affaisser. Est-ce qu'il faut le détruire ou il faut le réhabiliter Il y aura des ministères qui seront là. C'est ça la question de fond. Il y a une cohérence, politique Et d'autres ministères, 15 ministères, vont se retrouver dans une cité et au niveau donc euh, de Djamniadjo. Et partout, ça se fait de la même façon. En même temps, que vous, vous, allez en Indonésie. En même temps que vous, que vous, vous occupez euh, l'ancienne ambassade des États-Unis. Et cela oui. va se poursuivre oui, aussi Oui, pourquoi pas oui. Parce que tout simplement, c'était le seul ministère de souveraineté qui n'avait pas de ministère. Vous avez le ministère de l'économie, vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez donc le ministère des Forces armées qui sont là. Tout et tout répond à des objectifs et aussi à des données qui sont réelles depuis l'indépendance. Ce que je voudrais dire, et il faudrait bien le retenir, il ne s'agit pas de dire que nous avons un système qui va dans tous les sens, le système de l'éducation. Celui qui le pilote, il le sait. Il en a la qualité, il en a la, La, il en a la qualité et la vision avec laquelle il conduit. Alors, les projets qui lui sont confiés, notamment les deux grandes universités, ils vont régler l'engorgement de Dakar. Monsieur le ministre, sur on cette question, quand même, depuis des années, on en est à, sauve, on en est à un sauvetage oui, mais euh, de, parce que de, aussi, de l'année scolaire. Pas, Au pas. lieu de sauver l'école, on passe non. notre temps à sauver l'année scolaire. Oui, mais attendez ouais. aussi. Ouais. Je voudrais dire qu'en mm. ce qui concerne, on a dit qu'il y a un retard. Mais le retard, mm. mais vous savez aussi, le code du marché n'est pas simple. On ne va pas l'imposer d'un seul coup. Quand il y a aussi des gens qui sont défaillants, il faut reprendre l'ensemble du processus. Le processus, il faut s'informer avant de le dire. Ces universités, c'est une réponse. C'est dans une idée, une programmation qui est déjà faite. Il ne faudrait pas dire que l'État du Sénégal, à l'heure actuelle, est dans un pilotage à vue. C'est parce qu'on n'a pas essayé de comprendre réellement là où nous voulons partir. Le PSE, c'est trois axes fondamentaux. On nous a dit qu'on n'a pas parlé du tourisme. C'est un million. Il faut le vérifier de visiteurs. On dit que bon, il faut connaître parfaitement pourquoi l'accès 1 dit il faut une transformation structurelle de l'économie. Et on est sur ce trajet. Cette transformation structurelle qui va permettre d'arriver au niveau de l'axe 2. L'axe 2 pour se resituer dans un développement durable, mais étant, en mettant en avant la justice sociale, en mettant en avant la solidarité nationale, ce qui explique les bourses de sécurité familiale, ce qui explique aussi que l'on pense euh, solidarité nationale. Mais la l'axe 3, l'état de droit, mais aussi la paix et la sécurité. La paix, donc, qu'on néglige, qui est un élément fondamental qui nous permet aujourd'hui d'être dans le respect de nos droits, dans le respect de nos libertés, d'assurer ici au Sénégal cette stabilité qui fait que les gens viennent. Si l'on dit que l'économie, le fait que les, les, les, les investisseurs viennent, que ce n'est pas une assurance que tout va bien, la fragilité, eh bien, ailleurs, s'il y a la guerre, il n'y a personne. Et il faudrait dire aussi, cette économie de guerre, c'est l'achat des armes. Et ici, la croissance, ce n'est pas pour des armes, c'est pour la transformation sociale du Sénégal. De deux façons, quant au temps où nous avons ici le TR et autres, le PUDC, moi je suis des régions. Quand vous allez à Sarabamol, les populations qui sont là-bas, personne ne peut situer sur la carte où se trouve Sarabamol. Nous sommes ici des Sénégalais. Moi j'étais là-bas. Quand l'eau jaillit et que ça ne concerne plus les 15 villages, quand vous allez encore plus là, à Dianakoro, quand le, le, le, le quand l'électricité jaillit, mais quand vous êtes aussi sur ces pistes de production, ce qu'on n'a pas eu depuis l'indépendance, en attendant, vous faites Salemata Kédougou, quand vous êtes dans les coins les plus à Diabougou, qu'on ne sait pas, ce sont des pistes, ce sont des réalisations extraordinaires. Ça a changé et transformé la vie des Sénégalais. On n'en parle pas beaucoup, on voit les gros projets, on fait uniquement pour ça. Ces gros projets aussi, c'est pour précisément porter l'économie du Sénégal vers l'excellence. Ablaye Villane, le Saloum Saloum que vous êtes, euh, natif du bassin arachidier, une baisse de de la production d'arachide. Le, le président oui. de la République nous a livré aujourd'hui un très bon message à la nation parce qu'il a parlé en ayant comme euh, souci d'avoir des rapports de vérité avec les Sénégalais. Je suis, je ne suis pas que Saloum Saloum. Je suis Saloum Saloum agriculteur. je prends à ah, témoin mes compatriotes de Kaffrine. Eh bien, tu as été contre-performant sur l'arachide. Mais justement, parce que simplement, il y a eu certes des efforts extrêmement importants qui ont été faits par le gouvernement en matière de mécanisation et de modernisation. Des efforts ont été faits en matière de fourniture de semences de qualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé Au moment où nous, nous pensions que nos projections allaient nous donner un poids X, il est arrivé que au moment de la maturation de l'arachide, l'eau s'est arrêtée. c'est estompé. Par contre, on a, on a dans la presse que les organisations paysannes, notamment euh, le CNCR, euh, attend les 42 milliards qui avaient été promis par Ça, la Banque je... les 11 milliards promis par le pour accompagner la commercialisation de l'arachide. Ça mais il ne respecte pas ses non, promesses. Ce que je veux vous dire, c'est que le problème que nous avons avec l'arachide cette année, vous connaissez les chips Les chips qu'on est en train de produire, qu'on appelle cracks. Vous avez vu, quand, quand, avoir une dimension qui n'a rien à le poids. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que l'arachide est de mauvaise qualité. Cette année-ci, les récoltes. Mais malgré tout, nous allons quand même atteindre le chiffre annoncé par on aura une quantité avec une baisse d'ailleurs. Mais la qualité n'y est pas. La, la qualité, n'y est, est pas. Parce qu'il n'y a pas eu de bonnes semences. Non, non, non, non, tiennent, non, Les, les semences étaient bonnes. Ah oui La pluie s'est arrêtée. Par contre, cela moment... est contesté. La qualité non. des semences est contestée. Non, non. Si. Oui, mais, oui. mais je, je, vous explique. Je vous dis, mm. il y a plusieurs variétés de semences. Mm. Il y a des endroits où on avait des semences certifiées. Des endroits où on avait eu des semences écrémées, c'est-à-dire c'est du tout venant. D'accord Mais là où on a eu... Donc vous confirmez ce que je viens de dire. Mais, non, mais, Il y a des attendez, semences qui n'étaient pas... Attendez, la reconstitution du capital semencier ne se fait pas comme dans le cadre d'une baguette magique. On y va petit à petit, année après année. Et selon les aires géo, éco-géographiques. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je veux revenir un peu à une question qui a été soulevée, sans pourtant qu'on dise exactement ce qu'il fallait en retenir. La dette, l'endettement. Il n'est pas mauvais de s'endetter, sauf si vous vous endettez pour financer le fonctionnement payer les salaires et même là ce n'est pas totalement mauvais mais là, le type d'endettement que nous avons au Sénégal c'est un endettement pour l'investissement et monsieur Thioye j'ai relevé dans vos propos deux faussetés et permettez-moi de les signaler quant à la question de de Brekan relative au remplacement de l'université du futur africain par l'Institut des sciences du pétrole vous que le gouvernement de Macky Sall envisagerait, selon vos propres propos, de prendre l'argent des pays ou des chefs d'État qui ont voulu investir dans l'université du futur africain pour réaliser cette institut. C'est faux. Pas dit ça. Non, vous avez dit ça. J'ai dit que c'est les présidents des autres pays qui ont financé des amphithéâtres sur lesquels on met leur nom. C'est comme ça le mode de financement du Non, après vous avez même dit détournement. S'il vous plaît, le roi du Maroc. Les Sénégalais vous écoutent. Le roi du Maroc a mis de l'argent. D'autres présidents ont mis de l'argent pour la construction Aujourd'hui, on ne peut pas prendre cet argent qui a été donné par ces gens on leur dit que cet amphithéâtre-là portera votre nom et qu'on puisse transformer ce projet en un institut. non, Il a quand encore il reste encore dans le dans, dans le faux l'institut des sciences de du pétrole va être financé dans le cadre de l'appui de l'apport en ressources que des, des des partenaires qui sont dans le secteur vont donner c'est à peu près comme une sorte de de de de prime à l'entrée d'aucuns l'appellent euh, Euh, pour utiliser un ticket mot d'entrée. ticket d'entrée mm. <coughs> voilà comment est-ce que nous envisageons de financer cet institut donc ça n'a rien à voir la le deuxième la, la deuxième fausseté c'est mais c'est quand vous dites euh, que euh, c'est toujours sur l'investissement sur, sur l'endettement quand vous dites que nous avons envisagé de dépasser le nombre de l'UEMA non c'est totalement faux. 74 non atta attendez. la mon cher ami. ils disent de référence

Ces quatre ans de gestion, s'il vous plaît. Wilane, pour l'investissement, pour la plus grande partie. Vous êtes, vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, c'est du soul-bouki, pour le fonctionnement. 629 milliards pour le fonctionnement. Ça y est, dans de finances, vous pouvez regarder. Vous allez emprunter 212 milliards sur les projets, emprunt euh, projet. Et 200

Ah bon. Ils disent non, non, jamais. Lisez, lisez, lisez une décision non, au départ. Très bien, très On à, à, à, une période de ans. c'est deux phrases. si on dépasse le niveau, on peut revenir dans, une période de ans. C'est eux qui l'ont écrit, noir sur blanc. Ça est là, lisez. S'il vous ne dépasse, parce que les populations ont besoin de savoir. mais laissez Abdoulaye Villane le temps de prendre connaissance de votre document. Laissez Abdoulaye Villane poursuivre quand même. Ah, Abdoulaye Villane terminé. mais monsieur, monsieur je, vous, sais redoutable polémiste. Et vous savez comment faire tout pour euh, noyer un débat et le parasiter. Mais je, vous, dire ceci. Tout à l'heure, vous avez indiqué, et ça, c'est mon ami grand frère, même Mamadou Bouguet, qui que euh, en citant un économiste qui semble-t-il aurait affirmé que euh, jamais notre économie n'a jamais été aussi fragile. Mais c'est une c'est un mais ça c'est une copie de journal. N'est-ce pas? Ce n'est pas un cours qui a été donné dans une dans, dans, dans une dans, dans une université, c'est une affirmation publique, c'est tout. Bon, mais en tout cas, ce que je veux vous dire c'est que nos partenaires. Et, et, et M. Papa Limbay nous entend. à dire des choses comme ça. Mais je, à ce que discuter des choses, mais Demandez à ce professeur. Son quel est l'avis Si vous voulez, mais ne, ne Demandez à ce professeur quel l'avis, quelle l'appréciation du FMI, de la BAD et de tous nos partenaires multilatéraux sur la situation de notre économie et quelle est la valeur de notre signature. Est-ce que le Sénégal est un pays à qui on peut prêter encore et davantage. Ils ne vous diront jamais le contraire. Alors, Très bien. Ablaye Wilane, on va oui, oui terminer, terminer votre phrase. Je veux juste comme dire simplement euh, que pour ce qui est de euh, l'indice de développement humain, là aussi, professeur, euh, euh, maître Mamadama, nous sommes en train de régler le problème. L'indice de développement humain, ça concerne toutes les actions qui sont faites pour lutter contre la pauvreté, pour, pour faire en sorte que le, le, le capital humain soit amélioré, Et dans, dans l'indice de développement humain, c'est aussi résoudre les problèmes qui apparaissent à travers un problème que je note chez mes contradicteurs de ce soir. Il y a un véritable changement de paradigme que vous n'avez pas encore intégré. Monsieur le professeur, vous avez bien fait de parler des problèmes qu'on a Mais vous nous décrivez une situation qui n'a rien à voir avec ce que nous Très voyons. Il n'y a pas de période à la <coughs> le temps des réformes, le les gens dans leur grille de lecture. très bien Abdoulaye s'il vous plaît ne monopolisez pas la parole. on est en de formation adaptée aux défis actuels et aux défis futurs. on nous parle de pétrole. très dans le cas du TER. Euh, Abdoulaye Wilane si même dans le cas du TER. oui il va y avoir la création au Sénégal dans le cadre de technologie. d'écoles où on forme les gens qui vont demain des contremaîtres, des manœuvres, des ouvriers, des conducteurs de train. Quant au Alors ça, si vous nous dites que c'est Ablaye Villane quant au doc... la responsabilité oui terminez votre phrase quand oui. même quant au document de Tafsir Thioye qu'est-ce qu'il dit année 2015 57,1% 2016 60,8%

Cette année, nous avons été tous choqués par euh, certains, certains meurtres, certains crimes. Euh, Fatoumata Mahtar Ndiaye, euh, le, euh, ainsi que le, le, taximan qui a, été, qui a été tué. Le président parle de, de durcissement des peines. Vous êtes un avocat. Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour vous si vous permettez juste, euh, avant ça, je voudrais quand même revenir sur un point évoqué par le professeur, sur les retards oui. constaté dans la réalisation de certaines infrastructures. Je pense qu'on peut trouver une partie de l'explication sur les modalités d'affectation de ces marchés, parce qu'il faut quand même en parler. Même le building administratif dont on parle, il y a un retard. Pourquoi Il y a trois gros projets, les trois plus gros projets de, construction aujourd'hui ont été donnés à trois On a donné le building administratif à une société qui est spécialisée dans la vente de sanitaires et de carreaux. On a donné l'université Cheikh euh, euh, Amadou Mokhtar à un, un, un, spécialiste de quincaillerie. On a donné la construction la cité administrative à une société qui a été créée en décembre 2015. En vol immobilier. 2015. Mmh. Hmm. Hmm. En laissant de côté toutes les entreprises de référence dans les BTP. Il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est acceptable qu'on dépense autant d'argent, 30 milliards, 65 milliards, 56 milliards, pour les donner à des néophytes, à des profanes, là où il des entreprises qui ont des références partout en Afrique partout en Afrique. Pourquoi, on pourquoi ces entreprises n'ont pas ces marchés Et qu'est-ce qui est, ce qui est plus grave Quand on la croissance, c'est l'évolution de, de, de, de, du PIB. bien, Mais quand vous prenez ces trois marchés-là, l'entreprise qui a eu le marché du building administratif l'a sous-traité à des Italiens. une bonne partie de l'argent va partir en Italie. L'entreprise qui a le marché de, de, de, de Amadou Mokhtarmo a sous-traité avec des Turcs. L'entreprise, l'argent, l'essentiel de l'argent va aller en Turquie. En vol immobilier, a, a, a sous-traité à des Chinois. Et on nous parle de croissance. Une croissance, elle a une certaine qualité. La qualité de la croissance, c'est que l'essentiel de la croissance reste ici. La croissance qu'on a dans notre pays n'est pas une croissance qui a un impact endogène, essentiellement. Elle est portée par de grandes entreprises, les télécoms euh, et, et d'autres secteurs de rente. Et les télécoms, la majorité est détenue par des étrangers. Là, ça, c'est des que on ne, on ne, on dépense pas bien. Alors, pour revenir à, à, à, à, votre question, et puis aussi une autre question, vous posez, on a discuté de statistiques. Vous savez, je ne veux pas en discuter. Vous savez oui. pourquoi oui. Tant qu'on n'aura pas réglé la question fondamentale, et ça c'est une question fondamentale, parce qu'on peut parler de statistiques jusqu'à demain, de l'indépendance des institutions qui fournissent des statistiques, on ne s'en sortira pas. Tout à fait. En France, quand l'INSEE donne des chiffres, personne ne discute. Tout à fait. Ici, quand la, le directeur de l'ANSD a donné un taux de croissance que le plus ne partageait pas, il s'est fait virer et remplacer par, par quelqu'un d'autre, présenté comme approche du ministre. Donc tous les chiffres qu'on donne, je ne veux même pas en discuter, parce que ces chiffres sont sujets à caution, parce que les conditions dans lesquelles ces chiffres sont produits sont discutables, parce que les personnes qui sont désignées pour gérer ces institutions sont des proches du pouvoir, ne sont pas des personnes indépendantes. Donc ça, c'est des questions fondamentales qu'il faut régler pour pouvoir discuter sérieusement des chiffres qu'on nous donne. Par exemple, sur, sur l'agriculture. Moi, je fais toujours référence aux spécialistes. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle M. Saloussar, président d'honneur du comité interprofessionnel de la filière riz. Ouais. On n'a pas produit plus de 300 000 tonnes de riz en 2015, malgré tous les chiffres qu'on nous a donnés. Ouais. Ça, Donc ça, c'est quel jour dans de quelle année

un, un, un, un producteur ne devrait pas discuter des chiffres donnés. Parce que ce n'est même pas au ministre de donner les chiffres, c'est des statistiques officielles données par une institution indépendante. Ce que nous n'avons pas au Sénégal. Très bien. Sur la question de la sécurité, vous savez ce qui m'inquiète <coughs> C'est le, le, le, le, la cacophonie au niveau de l'État. Le principal responsable de notre sécurité, le directeur national de la police, dit que le Sénégal n'a pas de problème propos officiels, avec statistiques à l'appui, quand les Sénégalais vivent tous les jours l'insécurité. Donc aujourd'hui, j'ai un problème. Quand le, le, le, patron de la police dit que nous n'avons pas de problème d'insécurité, moi je suis inquiet. Le président de la République et son ministre de l'Indé semblent être sur notre registre, puisque le président lui-même s'en émeut en disant qu'on va apporter les solutions. Ouais. en parlant de construction de dix nouveaux commissariats et de 1700 agents de police qui seront recrutés. Bon, pour moi, mm. Mm. pour moi je pense que c'est des, c'est des, c'est, c'est peut-être une partie de la solution, certainement, les mm. commissariats. Mais je pense que c'est, cette question est tellement, inquiète tellement les Sénégalais qu'il faudrait peut-être une approche plus stratégique. J'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression que sur certaines questions, nous n'avons pas un, un État stratège. Nous avons un État qui réagit aux urgences. Et ça, c'est un problème. La question de la violence ne s'est pas révélée du jour au lendemain. C'est un processus. Ce n'est pas pour rien qu'on travaille sur les questions de prospective. Un État qui a les données, qui a des éléments, doit analyser l'évolution de la société par rapport à un certain nombre de critères et anticiper. Ne pas attendre que les problèmes se posent, dire voilà les solutions qu'on qu propose. Ça, on court derrière les urgences. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. il faut anticiper, avoir une approche stratégique et attaquer les problèmes par anticipation. La question de la sécurité en est un, les Sénégalais sont très inquiets. J'espère que le président en a pris toute la mesure. Le durcissement des peines, c'est une partie de la solution, mais je ne pense pas que c'est une... C est, c est, c est... ça ne me rassure pas a développé approche holistique globale de prise en charge de cette question. Professeur, sur la criminalité ou l'insécurité euh, sur cette question de durcissement des peines. Oui, euh, merci oui. Mamadou, mais je voudrais quand même euh, préciser bon, ma pensée. si chacun procède de cette façon, on risque de difficilement s'en sortir. Mais je ne voudrais pas être le seul à faire exception aussi. Euh, je veux dire qu'en fait, euh, il y a euh, un certain nombre de précisions que je voudrais apporter par rapport au projet de Diamniadio. Diamniadio, je n'ai pas dit que ce un bon projet. J'ai dit tout simplement que c'est une nouvelle ville qui est créée et on ne fait que euh, différer les problèmes qui se posent à Dakar. C'est une excroissance de Dakar. Je dis que le vrai problème, c'est qu'il y ait à l'intérieur du pays de vraies villes avec des activités économiques qui puissent fixer les populations, des activités créatrices de revenus. C'est ça que j'ai dit. La deuxième précision que je voudrais apporter, j'ai dit qu'il y a un pilotage à vue. Je sais pas, je n'ai pas utilisé l'expression, mais j'ai dit qu'on est dans le colmatage permanent, c'est-à-dire que l'on constate les problèmes mm. et par rapport à ces constats-là, on essaie de trouver des solutions alors qu'il lui fallu penser ces solutions-là bien avant euh, ces problèmes-là bien avant qu'ils arrivassent. Voilà ce que je voulais dire. Sur les agrégats, je voudrais dire tout simplement qu'il ne faut pas être dans la fascination fantasmatique des chiffres et que les chiffres ne reflètent pas toujours la réalité. C'est vrai, il y a toujours un déphasage et qu'il faut dire aussi qu'il y a un enjeu autour des chiffres, parce que les chiffres ne sont pas innocents. Selon qu'ils sont donnés par euh, euh les, le pouvoir en place ou par l'opposition, les chiffres sont toujours plus ou moins biaisés. Encore que pour ce qui concerne l'économie, il y a des réalités qui font euh, que euh, on a du mal à mesurer effectivement ce qui se passe sur le terrain économique et que les chiffres sont souvent déphasés, notamment avec les difficultés qu'il y a à avoir des statistiques sérieuses. Je termine sur euh, juste ce point pour dire également à mon cher Villane, je voudrais dire pour votre bon gouverne que les problèmes de l'éducation nationale, nous les vivons tous les jours en tant qu'enseignants et donc nous sentons les problèmes. C'est pas parce qu'on a créé un institut de pétrole que cela va changer la situation. Maintenant sur euh, par rapport la criminalité. Au, euh, très bien Mamadou, par rapport à la criminalité, je pense d'une part qu'il y a aujourd'hui une sorte de surmédiatisation des problèmes liés à la sécurité parce qu'il y a eu une pluralité de crimes crapuleux qui se sont succédés. Donc il y a un effet d'amplification par les médias qui ne reflète peut-être pas forcément la situation sécuritaire du pays. Et cela nous renvoie également à ces dérives, à ces biais liés à l'utilisation des statistiques. Mmh. Autre chose, c'est que le problème de la sécurité également ne doit pas être apprécié tout simplement euh, sous l'angle du fait de créer encore euh, euh, quelques postes de commissariat ou euh, de recruter euh, des, euh, des, forces de sécurité en plus. Je pense que la démarche de lutte contre l'insécurité doit être une démarche inclusive. Lutter contre l'insécurité, c'est faire en sorte que les jeunes puissent être bien formés, qu'ils puissent bien être éduqués, euh, qu'ils puissent vraiment avoir des possibilités d'insertion sociale par l'emploi et on ne fait rien par rapport à ces questions de pauvreté, d'emploi, socialisation, on ne règle pas le problème de fond de la sécurité. que vous allez préciser votre pensée vous aussi. allez à la question sur la criminalité. Oui, je vais, ouais. je vais préciser deux choses. La de la loi de finances 2017, taux année 2015 57 année 2016 60 virgule 8 année 2017 62 virgule 3 année 2018 62 virgule 3 année 2019 60 année 2020 55 virgule 8 et ils ont dit en dessous hmm. en cas de dépassement constaté des mesures seront prises pour un retour dans un délai

et aujourd'hui ils ont atteint 62 virgule 60 virgule 8 pour cent en 2016 et ils vont vers 62 virgule 8 et plus grave ils n'ont jamais respecté les prévisions qu'ils ont faites et c'est ça le plus dangereux entre le décalage du document de programmation budgétaire économique pluriannuel et la loi de finances c'est extrêmement Très bien. Euh, euh, large de la traque des biens mal acquis monsieur le ministre je vous fais lire la loi des finances 2013 rectificative on dit précisément

notre yeux nos, nos yeux sur la gestion de, de, de Dubaï Port World parce que vous avez voulu de l'argent mmh. aujourd'hui le gouvernement du Sénégal fonctionne sur la récupération de l'argent qui est dans que, nous avions laissé ici pour des recettes exceptionnelles en 2013 avec l'argent de Dubaï Port

s'il me trouve un seul franc dans le budget provenant de la traque des billets mal je lui dis je quitte la scène politique non s'il vous plaît il moi qu'il vienne à votre place parce que vous ne maîtrisez pas les choses il vient là et on discute c'est ça même devant le président de la République je suis prêt devant le président de la République Amadou Ba moi et le très bien deuxièmement à Tafsir. oui mais il faut quand même qu'on organise et qu'on respecte l'organisation du débat vos chiffres sont très intéressants certainement mais sur la criminalité dites un mot quand même. la ah. nostalgie s'il vous plaît s'il oui Tafsir Thioye sur la criminalité. Inch'Allah, Tafsir Thioye, s'il vous plaît. Très bien. répondez, répondez. je dis sur la sécurité. Oui. on ne devait même pas avoir ce débat. Billahi wallahi, on ne Le président de la République a dit chez, Ma, que la société sénégalaise est en crise profonde par rapport à ses valeurs, à votre échec total du gouvernement du Sénégal. C'est inimaginable. Et après, qu'est-ce qu'on fait rien On nous parle de TR, on, nous parle de... on ne peut pas bâtir sur du sable mouvant. Quand la société sénégalaise attaque est en crise profonde par rapport à ses valeurs, il est important de s'arrêter. Et lui, Monsieur le Président de la République, s'était engagé en 2014, si je ne sais pas, dans son discours, à renforcer les valeurs que nous ont léguées nos anciens,

la perspective du Sénégal est prometteuse. On ne peut pas remettre ça en question. C'est fondamental. Ce que je dis là, c'est net. Le Sénégal est en progression. Nous sommes trois pays en Afrique, ici, qui font de la croissance. Dans ces trois pays, le Sénégal est là. On ne peut pas remettre en question la croissance ici parce que uniquement, on voudrait faire alors, du, débat pour, euh, du débat pour du débat. Ça, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Je voudrais dire, quand on parle de nébuleuse, euh, quand on parle de mal dépense, il faudrait préciser cette pensée. Ce que je dis bien, il y a un code de marché. Il y a eu des attributions. Tout le monde peut, qui que vous soyez, vous pouvez, sous, vous pouvez soumettre, vous pouvez, euh, comment s'appelle, soumissionner comme tout le monde. Ça a été fait. Et maintenant, il faudrait, quand on dit qu'il y a une absence de transcendance dans, ces, dans cette soumission, le prouver. C'est trop facile de parler et de lancer, donc euh, de mettre en question la manière dont les choses se sont passées. Mais je voudrais aussi préciser, et quand on parle aussi euh, du fait que la, criminali la criminalité qu'il y a eu euh, un problème au sein du gouvernement. Mais tout le monde a écouté le chef de la police. Il a dit il y a actuellement un séisme émotionnel hmm. par le fait qu'une femme a été égorgée. Et on a dit qu'il y a une insécurité totale parce qu'il y avait ah, à juste raison, hein. qui a été tué. Oui, ah, mais raison. il a donné les chiffres ouais. pour donner, pour hmm. montrer que jusqu'ici, nous sommes dans une norme. Ces faits-là ont évidemment eu un séisme émotionnel. Ouais. Et quand on a parlé alors euh, de cette situation-là, et qu'on parle des valeurs sénégalaises, mais oui, comment pouvez-vous comprendre qu'une personne que vous gardez à la maison, qui vous paye un salaire, qui est votre employé, vous avez donné, je vais aller à Touba, je vous donne 50 000 francs, et ensuite qui disent, parce que tout simplement, euh, je, je, dois donner au Maïboudjek, je n'ai pas 300 000, ben on terrasse, alors euh, donc euh, son employeur, on l'égorge comme un bouton. bien sûr que les Sénégalais peuvent être complètement alors euh, choqués par ces faits. Et le Mais le problème, oui. c'est de dire est-ce qu'il faut un policier dans chaque maison? Le problème n'est pas là quand on dit non, il ne faut pas parler de construction de commissariat. Quand il y a des insécurités en France et ailleurs, et dans n'importe quel pays du monde, qu'est-ce qu'on fait? C'est de prendre le taureau par le cornes, parce qu'il y a une insuffisance. Et cette insuffisance, ça se comble par quoi? Par le recrutement. Il y a une insuffisance, c'est quoi? De commissariat. Il faudrait faire, c'est ce qui se fait. Ça, ce sont des réponses, des réponses rationnelles, structurelles et qui ne sont pas tout simplement des pipeaux. Durcissement des peines. Durcissement des peines. Monsieur le ministre de la Justice, ça, cela renvoie ça à quoi un débat oui. sur la peine de mort. Oui. Sur beaucoup de choses que les Sénégalais ont eu à dire. Mais ce qui est certain, Mais le président a code, soigneusement évité voilà, le mot peine de mort. Code règle oui. la question. Oui. Vous savez, si vous avez dans les circonstances dans lesquelles ce sont les circonstances et les juges peuvent être amenés à vous condamner à perpétuité. Mais ça, ça dépend des circonstances dans lesquelles. Mais les ça, crimes cela existe passés. déjà. Ça, oui. Donc par conséquent, il suffit tout simplement que lorsqu'il y a de telles situations, que l'on puisse poursuivre le plus rapidement. C'est ce qui a fait dans ce cas d'espèce. Je crois que ça n'a pas été si difficile parce que la personne a reconnu très tôt. On a fait, on va se dire qu'on ne l'a pas jugé tôt. Il n'y aura Mais pas non, de réforme des peines Non, je pense que nous avons euh, actuellement euh, un code qui, est, qui répond à des situations euh, comme celle-ci. Et en ce moment-là, lorsque le procès aura lieu, le procureur va requérir, mais il aura des avocats, et les juges tiendront compte des différents éléments et prendront les décisions qu'on ne peut pas envisager. Parce que je ne sais pas ce que le juge va décider. Mais ce qui est certain, il y aura une plus grande fermeté dans des, dans des poursuites lorsque de telles situations se passent pour rassurer les Sénégalais qu'il y a un avocat de la société, c'est le procureur de la République, c'est son travail, il le fera de manière à ce que maintenant les Sénégalais soient mieux protégés. Pour les autres aspects, nous ne sommes pas dans un débat sociologique, nous sommes dans un débat de réalité à partir d'une question assez précise sur la criminalité. elle se, elle se situe, si on le veut, dans, un, dans, un, dans une conception holistique du développement. Alors, vous dire que tout est tout. Mais dans tout et tout, il faudrait prendre les mesures qui permettent de progresser et d'avancer. Ces mesures sont déjà prises, mais il faudrait aussi se dire qu'on ne peut pas atteindre, et, et ça n'existe nulle part, si ça est là, que quelqu'un me dise quel est le pays qui réalise le taux zéro de, de, de la sécurité. S'il y en a, quelqu'un me le dira. Mais ce qui est important, c'est que l'État prenne conscience de la nécessité d'assurer la sécurité des Sénégalais en mettant davantage de gendarmes, en demandant des forces de sécurité alors, euh, euh, dans les différents coins et en même temps en prenant d'autres mesures qui participent euh, tout simplement à faire que alors nous ayons qu'on soit moins porté à la criminalité qui, qui, avance. Avec la complicité de notre réalisateur, nous allons suivre deux réactions, celle de Ousmane Tanordien secrétaire général du Parti socialiste, président du HCCT et d'Abdoulaye Baldé, leader du parti UCS de l'opposition. Nous les écoutons. Le président a choisi d'être euh, exhaustif et effectivement de toucher tous les secteurs allant de euh, l'éducation à la santé, touchant à l'énergie, à l'agriculture, aux, aux, infrastructures. Et de ce point de vue, je pense que il a dépeint un, un bilan, un bon bilan, un bon bilan. Il y a de, des réalisations qui sont absolument incontestables et qui s'étalent sur l'ensemble du pays. La, la, solution qui sera donnée euh, au, conflit, à, à, ce qui se passe en Gambie, aura des conséquences sur euh, effectivement le conflit casamancé. C'est pour ça que c'est bien que le président, dès l'entame de son message, se soit prononcée soit, soit appesantie et se soit félicitée du processus en cours en, en Casamance. C'est vrai, c'était aussi c'était un autre manquement, le blackout total sur la politique alors qu'on est dans une année électorale. Euh, même si, on sait que la diminution de l'électricité, en tout cas de la pré la campagne électorale, il fallait faire des petites annonces pour que les Sénégalais bon, on pense Mais je pense que de façon globale, on devait parler du dialogue national. On parlait, on devait parler. Euh, L'opposition s'est beaucoup plainte ces derniers temps dans un certain nombre de sujets euh, qui tournent autour du processus électoral. Il fallait les rassurer sur certains points euh, qui tournent autour des respects des libertés individuelles et démocratiques, des respects de la parole donnée en politique. Je pense que tous ces, tous ces sujets Euh, méritait quand même un clin d'œil au monde politique et puis enfin une fenêtre ouverte sur euh, euh, le processus électoral qui est en cours, la, la production des cartes d'identité qui est, qui est très lente et que tout le monde déplore, même si on dit que des, des, des, des commissions supplémentaires devront être déployées, que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora, ça tarde encore à être mis en place, donc les gens sont inquiets. il aurait été important que le chef de l'État nous rassure un et que mettre en place en tout cas un système euh, de de Réaction à chaud propos recueillis par euh, Souleymane Touré et Ablaye Baldé, propos recueillis par Boubacar Diassi, notre correspondant à Ziguinchor, quand Ousmane Tanor insiste sur l'exhaustivité du message à la nation du chef de l'État. Ablaye Baldé lui fait remarquer qu'il y des omissions comme sur le dialogue national sur le processus électoral euh, et cetera c'est l'occasion bu ngeen ko permettre ah ñu euh, wax ci wolof comme ni ngeen ko xamee ci njeextalu at bu nekk euh, njiitu réew mi dafay jaakaarloog euh, sénégalais yi ak sax mën nañu wax monde bi pour def discours bi ñuy woowee message à la nation tey def na ko 31 décembre 2016 mu wax ak ma donc askan wi ci ay ponk yoo xamante ni bari na lu mel ni mbay mi lu mel ni ndox mi lu mel ni euh, faj mi euh, wérgu yaram bi ak surtout wàllu nag euh, électricité courant bi ndaxte xam ngeen ni courant moom dafa mës a nekk problème ci ci réewu Sénégal ay coupure de courant yu bari wala léeg ay facture courant yu cher kooku ñun ñëpp gis nañ ko ràññee nañ ko ba tey gi ñuy wax révolution du solaire di wax ay mix énergétique njiitu réew mi ne wàññi na maanaam 10 pour cent ci njëgu euh, courant bi 30 milliards euh, ci suñu koppar boo xamante ni jox na ko consommateurs yi loolu nag nekk ponk bu am solo ñu nekk tey ak euh, ministre de la justice Sidiki Kaba ki nekk ci wetam Abdoulaye Wilane porte parole partie socialiste ama droite euh, ndeyjoor lañ koy wax yi de ndeyjoor waaw maître Mame Adama Guèye plateforme avenir Sénégal bu ñu bëgg professeur Maurice Ndione di jàngalekat université Gaston Berger bu Saint-Louis ak Tafsir Thioye nekk parti démocratique sénégalais Abdoulaye villane ci yow la ñuy commencé puisque ci français bi ministre de la justice moo daaneel léegi euh, wàññitu njëgu courant bi 10 pour cent ndax euh, loolu lu am solo la ci sa gis-gis. jërëjëf xam nga man ma nekk militant wu responsable parti soliste bokk ci benn bokk yaakaar donc bokk ci régime bi. li ma war mooy solidarité politique ou gouvernementale waaye nag du ma tee su ma gisee loo xam ne nii li may dund ak li Sénégal dund ñongul dinaa ko wax balaa maa ñëw ci question bi dañuy daanele léegi ci biir sécurité man fële ma dëkk ci Kaffrine dëgg-dëgg am nañ problème sécurité ndax yéen a ngi dégg 4 x boobu di wër ci dëkk yi fekk boroom kër ci biir këram fëgg ko yee ko dugg këram jël alalam tooxal ko ci kanam njabootam loolu ñu koy dégg di ko déggaat càccum jur gi lu ñu métti kooku moom man mii non seulement baykat la parce que loolu laa xam waaye tam sàmmkat la looloo tax wax dëgg yàlla may jéem a sàmm sama ngor ndax dañuy xam ne balaa ngaa goree da ngaa ci dara su ma nekkuloon baykat yarkatu jur kon amaana fukki at ak ñaar yi nga xam nii ñi nga xam ne nii koppart ak koppartu rek ba yàq ba yàq jikko yi la ñu réew mi kon amaana ñooñu dañu mën ci man dara loolu nag su ma ko waxee li ma ci bëgg a wax mooy damay rafetlu taxawaay bi président de la République taxaw ak gouvernement am ci ne na nañu seet bépp anam bu ñu mën a aw pour gën a diisal daan yi ba nga xam ne defkati nakkas du noonu yi ñiy salfaañe yoon ñiy jàdd yoon dootuñu am fit mbala xalaat def ko may rafetlu itam taxawaay bi nga xam ne nii Euh, commissaire Mal mu ngi ko am man li ma xam ci àdduna lu néew dama jàpp ne kilifa moo xam jiitu armée la wala jiitu gendarmerie wala jiitu police du nangu di aw ci fi nga xam ne nii moom day nekk di jàmbat jàmbatu ndax ñooñu dañuy bàyyi xel moralu troupe bi te fi Sénégal toll ak sous-région bi ñu nekk ku xool li xew Mali te ñëpp gis ñooñu li ñuy def ci réew yu nekk France ak États-Unis ak Allemagne wàllu terrorisme ki jiite police ak ki jiite armée ak gendarmerie war ñu taxaw di wax waxin boo xam ne dañuy gëmloo nit ñu ne Sénégal amul sécurité wala amul karange du tere nag du tere li nga xam ne nii moom la ñëpp war a bàyyi xel mooy ne lu toll ni njiitu réew bu waxee ni mu waxee ci jamono bi nga xam ne ñëpp a ngi jàmbat ak lu lor yi ñuy lor ay nit ku mel ni Fatoumata Matar Ndiaye ñi man na xamoon ko bu baax a baax xamoon ko xam ko ci am ak ay relation yu yu yu yu yu xet loolu mën nañu comprendre problème bi maintenant ci wàllu message à la nation at mu ne njiitu réew mi na ko Senghor daan defee Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall tey bii mooy ñeenteel wala juróomeelu yoon day jàkkaarloog askan wi wax fi réew mi toll liñ def liñ mën a def ci liñ yéene defal Sénégal ak li loolu wax naa ko ba pare léegi ñëwoon nag ci ci wàññi 10 pour cent 10 pour cent njëgu courant bi. waaw waaw tey nag bu ñu waxee. yu bees yu nga xam ne dina nekk ay terre beeg yooyu noonu. Hmm. te muy loo xam ne lii mosu fi am. Ah. te loolu di wane ne président bi fi nekk lii itte mooy normal mag ñi. mérite fekk mérite li doon daj ñoom ci réew mi respecté di déglu ñi nga jamonoonteel waaye di bàyyi xel ëllëg njaboot gi bu ñu màggee di toll ci ñun fi ñu toll yan situation la ñuy dundee mu indi lu mel ni ki teer président it dafa indi benn ndéwénal bu ñu jox ndéwénal bi mooy at mi door na ba muy jël réew mi kenn xalaatu leen wàññi njëgu courant booba fu ñu amee courant la ñuy wut di ci suruxal xaalisu réew mi ñi yoroon réew mi nga xam ne dañu doon pasar pasar rek saax saax yi di ñu nax wala bu ñu amee investisseur bu ñëw dafa contrat Sénégal ñi xëy xëy rek dàq kooku kooku yóbbuñ ci yoon ñu koy fay xaalis bu dul jeex jamono ñëw. njëgu pétrole ci àdduna bi wàññeeku waaye xam ngeen ne lañ fa doon def ci xaalis mais pour mu taxawaat ba tey ñu jàpp ne koom-koomu Senelec woom na mi ngi def bénéfice yu bëri te ci réew moo xam ne nii wax dëgg yàlla santé SONES ak Senelec santé SONES ak Senelec ak Sonatel ñoo gënoon sonal nit ñi facture bu weeru jotee weeru dee suñu toogee ba président moom wàññi na ci 10 pour cent ñi xayma ko ci ne 30 milliards la dama ne ouvrier bi moo xam maçon la euh, moo xam tailleur la moo xam soudeur métallique la moo xam kii yére sax machine wanam machine wal di ci dunde moo xam entrepreneur bi nga xam dafa yor ay usine moo xam borom kër gi xam ne yor wu nekk bu fay courant ci li doom yi jàng gi noonu ma ne ku newul lu baax la la ngay wax da ngay suul jëf suul jëf nag moom mën nga ko def ci lu ne ba mu des takk der Tafsir Thioye 10 pour cent wàññi kii njëgu courant bi <coughs> noo ko noo ko gisee. mu toll ci trente milliards ci suñuy koppar. waaw damay damay damay damay nuyu encore suñu suñu mbokk yi ñu seetaan di leen wax ni rek mbégte lañu am ñëwaat ci plateau de télévision yi après peut boo xamante ni toog nañ may nguur gi ñu liggéey ñu observé leen. Hmm. ñëwaat pour waxtaan un ci réew mi discours président bi je pense que ñoom loolu moo leen ci intéressé woon mooy wax ci 10 pour cent yi ñu wàññi mais dafa nekk ni Sénégal dafa toll fu nga xamante ni Mamadou su ma doon président Macky Sall tey am na loo xamante ni noonu laa doon doxalee 2013 waxoon naa ko nee naa ko président ce discours tey warul woon nekk discours lenn dul dégg naa leen ngeen ne réew mi dafa makki dafa makki ba dafa mareem comprendre naa leen dem wax ak waa Sénégalais yi ñu turi yàlla dimbale na ma début janvier 2014 il dit mon programme yoonu yokkute ne veut pas développer le Sénégal j'ai décidé de le changer sant yàlla ci loolu. deuxièmement tey Sénégal toll foo xamante ni dafa métti moom mu d'accord ci moom moom président bi ni réew mi dafa toll ci crise crise ci société ay valeur yan mooy valeurs yi nee na valeurs yooyu dañu am problème kon donc waratuñu wax ay waxu terre waratuñu wax waxu leneen leneen lu dul toog waxtaan réew mi pour xool fan lañ jëm parce que mënuñu kekk ci crise ba pare kon ni di tabax di dépense suñu xaalis ça ne donnera rien je suis désolé de le dire et c'est wax ci 10 pour pour cent yi dama lay wax fi ñuy jëm pour nga comprendre hmm. ñun bi ñuy ñëw 2000 200000 abonnés ñoo amoon au niveau de la Sénélec 200000 la capacité installée ne faisait pas plus ñu ñëw entre 2000 ak 2012 la clientèle a augmenté jusqu'à 800 000 ñoo xamante ne abonné wu nañu Senelec du fait de la des performances économiques de notre Égypte ñu war a construire ay centrales pour dabu ji loolu ñu bàyyi fi 530 mégawatts d'installés 530 000 avec des projets clairs et j'ai ici le document de politique économique et sociale 2011 2015 on nous dit à la page 49 et tout ce qu'on devait inscrire surtout par rapport à l'énergie solaire 200 mégawatts pour les euh, de, de productivité d'origine renouvelable injectée dans le réseau. planification s'il vous plaît. ci planification pour nga xam lii balaa moo ñëw document bii dafa am ñaari document yu ko jiitu document de réduction de la pauvreté DSRP 1 réduire pauvreté bi niveau bu nga xamante ni dina ñu permettre. waaw Ablaye Wilane ba bàyyi ko mu àggale waaw Ablaye Wilane boo amee kaddu gi nga nga waaw waaw bàyyil bàyyil ba nga amaat kaddu. waaw ba bàyyi ko bàyyi ko mu àggale kii li muy li muy wax. bàyyi ko mu àggale bàyyi ko mu àggale ñu ñëw ñu ñëw hmm. wax ni hmm. dañuy indi mix énergétique page 21 page 21 bu document de politique économique sociale bi ñu ngi ci wax loolu. te président Macky bi mu ñuy jox dëgg ni mix énergétique du moom moo ko créé. Kaffrine la ko waxee ci conférence de presse bi mu defoon foofu la ne c'est mix énergétique bi wax aw la yéwén dama ko fee fekk kon tey jii yéen ñi nga xamante ni yéen koy jàppale mais mun leen nekk gën a nekk roi que roi wala ngeen dem ci document yi ngeen informé wu mun leen continuer di wax loo xamante amul c'est pas possible ngir yàlla war a sulihi loolu c'est le minimum deuxièmement ñun dañoo investir ci wàllu énergie plan takkal daf fi bàyyi lu nga xamante ni mooy dajale lépp lu nga xamante ni xeetu courant fu muy ñëwee ci wàllu ndox felu ñun ñoo ko inauguré ça nous donne 15 Samba Ngalu tey jii ñu ngi ciy waaj ñu ngi koy ñu ngi koy waaj ñu ngi ci pour mu jox ñun courant ci ndox mi centralu Sendou bi 125 mégawatts yi ñuy def fii te ñoom ñu reconnaître dans le document que am na retard pour ñun ñoo ko fi indi ñu indi woon fi képp ko pour mu def fi 300 mégawatts de charbon au niveau de Sendou origine encore benn origine bu dul bu ñoom ñu ñëw naxtaan ak képp ko njuut ñu njaaj ba képp too daw ndekete ñoom Africa Energy lañ bëggoon a indi pour mu def au le même truc euh, que que képp ko mais Africa Energy li yàlla dogal mooy ñooñu amuñu expérience ci wàll wi moo tax fii ba 2020 wax naa leen dama leen défier fii ba 2020 te depuis ma koy wax na ñu indi fii 1 mégawatt parce que xamuñu ko amuñu xaalis bi c'est ça la te képp koo pare woon na alors léegi pétrole bi nga xamante ni ñun dañ ko ñëw fekkoon mu nekk 20 mégawatts en 2000 2001 ñu bombardé World Trade Center yi finalement mu jógee 20 dollars population bi attanu ko Abdoulaye Wade di jël 120 milliards di ko ci def. pour dimbali askan wi. tey jii 120 milliards yooyu ñoom dindi nañ ko ba pare nag pétrole bi wàññeeku léegi ñu jël xaalis boobu ci pétrole bi di ko financer seen ay politique ci loo xamante ni teguñu ko dara ci lu leer et c'est ça la vérité léegi bu ñu wàññi nañu 10 pour cent nga ne muy 30 milliards waa 30 milliards ci 15 millions de sénégalais c'est 2 francs xaw ma chose comme ça par par sénégalais xaw ma 2 moom la ñu fi bàyyil te ngeen am honnêteté intellectuelle wax ko Sénégalais yi nii lii lañ fi fekk ñun li lañ bëgg def ñun ñu tàccu mais bu ngeen bëggee ñëw ñun bëgguñu gas suul ñu duñu ko nangu un deuxièmement bu ngeen bëggee ñëw utiliser suñu ay idée suñu ay programme suñu ay projet suñu xaalis parce que bàyyil nañ leen fi document bi 5700 milliards. s'il vous plaît. s'il vous plaît waaw waaw àggaleel nag parce que am na ñeneen ñu ñu bokk ci débat bi. waaw léegi waaw 10 pour cent yooyu ñu weex mën nañ ko man gëm naa ne man tafsir que mën nañ ko parce que aujourd'hui xam nga ñoom li ñu def dañu dem dañu dem Mauritanie leen dañu fay jënd mais man dama dus sax ñu ne Mauritanie la dem pour jënd 20 de courant pour di ko yokk ci courant bi demaat jëndaat 80 mégawatts lañ prévoir pour yokkaat ko ci turc léegi sax dem nañ ba ni 150 mégawatts la dem jëli Mauritanie te ñun en 2016 dañu waroon a jaay courant bi ñuy ñëw réewu àll yi 5 pour 5 pour cent ngeen fi bàyyi yéen parti socialiste électrification rurale ñu ñu yóbbu ko 25 pour cent en 2012 tey jii àggagu leen presque 30 pour cent fa ngeen yem donc wax ji dafa bari. Euh, ah, bi ma gis de 66 pour cent le président wax. 66 pour cent monde rural euh, accès accès à l'électricité loolu ce n'est pas possible. très bien très bien léegi léegi professeur professeur Maurice Ndione professeur Maurice Ndione ci euh, ci ci ci wàññiti kii wàññite njëgu courant bi 10 pour cent bi ndax euh, loolu mesure bu am solo la walla munoon na noon na demee neneen munoon na fi ëpp par exemple. waaw man <clears throat> dama yaakaar ne lépp hmm. loo xam ne dafay wàññi méttitu askan hmm. ci ci euh, wàllu. wàññi seen jafe-jafe euh, ndax euh, euh, mbir yi cher na donc loolu dañ ko mën a rek di ko rafetlu waaye waroon nañu xam également lan moo tax ba nga xam ne xaalis bi fi doon dugg yëpp ak njëgu essence bi njëgu pétrole bi ni mu wàññeekoo lan la état bi gagné léegi ñu xool. ci la mu gagné lan la ci jébbalaat askan wi loolu buñ ko xamoon danañu gën a mën a xayma li nga xam ne moom la président bi euh, jagleel askan wi hmm. waaw loolu daal laa ci laa ci mënoon wax mais ñu gis ne aussi li ma ci gën li ma ci mën a teg mooy war nañu xamit Séné Sénélec lan mooy situation wam ndax am na ay jafe-jafe jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ko xame woon ba mënuloon jox sénégalais yi courant bu doy ndax jafe-jafe yooyu saafara nañ ko ndax bu fekkente ne rek njëgu petrole bi dafa wàññeeku ba nga xam ne euh, euh, def na ay bénéfice ci bénéfice yooyu mi ngi ko jëlee rek ci njëg bu wàññeeku bi loolu euh, du nekk situation boo xam ne dafay dëgër ci ci ci Senelec quoi. loolu daal la sax njiitu réew mi dégg nañu directeur général Senelec wax na ci njëgu. Euh, courant bi ne bu fekkente ni rek ci wàllu pétrole bi euh, euh, wàññite njëgu pétrole bi lañ koy basé wu xëy na dina indi ay jafe-jafe ëllëg bu njëgu pétrole bi yokkoo léegi ñu président de la république dogal ni 10 pour cent lay wàññi ci ci ci njëgu courant bi loolu li li ngay rafetlu la walla am nga ci daal jixi waaw sëslaayu laayu sës wàññi bi moom kooku du ma woo waxu jàmbur dañ bàyyi président ak ministère wax directeur Sénégal wax fan lañ ko wéer parce que li ko professeur waxee léegi loolu lu am solo la hmm. ndax dañ ko wéer rek ci wàññi waayu njëgu pétrole bi àdduna bi wala dañ ko wéer ci euh, ni ñu ni ñu ni ñu liggéey bu rafet bu ñu def Sénégal ba xam ne Sénégal tey mën na euh, fournir courant dans les conditions yu tax ñu mën a wàññi loolu ñoom ñoo ko mun wax li ma wax ci wàññi bi daal mooy man de consommateur la damay fay électricité yi ñëpp li ma we weer yi passé xaw ma ñëpp la waaye man de sama facture dafa yokk xaw ma xaw ma dañ koy yokk pour wa pour wàññi ko après waaye daal sama facture dafa yokk hmm. parce que su fekkee da nga yokk facture bi euh, euh, euh, téeméer bu nekk nga def si ñaar fukk xëy ne wàññi naa si téeméer bu nekk fukk loolu du wàññi hmm. loolu nag lu ñu mat lu mat a gëstu la hmm. lu mat a gëstu la je pense que association consommateurs yi dégg nañ li président wax nañ ko analyser pour seet ndegam laata muy wàññi bi di ñëw amul yokk bu ko jiitu. Mhm. yokk boo xam ne kenn annoncé wu ko. Mhm. loolu loo am na solo. Mhm. waaye nag wax dëgg yàlla nag fi ñu si toll nii daal fi ñu wax fii parce que élément yooyu jotuñu. fi ñu toll fii. vraiment président bu jógee ne Sénégalais li ngeen di fay wàññaas 10 pour cent wax dëgg yàlla nag. kooku dafa baax si Sénégalais yi. parce que borom kër boo xam ne sa facture bu daan cent mille francs ñu wàññi la si 10 pour cent ngay fay quatre-vingt-dix mille dix am na fu mu mën dem loolu wax dëgg yàlla. mais comme ni ko professeur waxee léegi loolu lu mat set la parce que tamit war nañ gëstu mbir parce que président dama d'accord sax nag Ablaye wilaat mu naan ndéwénal du ndéwénal suñu alal la président suñu alal la ñuy delloo waaw lu mat a wax la donc ni ko ni ko professeur waxee alal bi alalu Sénégal dañ ko jox mu gérer ko bu koy gérer nag am na loo xam ne dafa amoon ba ba ba ba ba yombal gouvernement bi liggéey mooy pétrole li mu rësee ba wàcc problème mooy ni mu rësee lan la ci gouvernement bi denc lan la ci gouvernement bi am wàññi boobu ak yeneen facteur favorables loolu bu fekkee ne nag dafa am ni mu koy séddalee li mu ñu ci war a delloo dañuy war a seet naka méngoo na ak moom li mu ci jotoon am moo tax loolu man ñaan naa économiste yi association de consommateurs yi ñu analyser loolu pour que ñu mën a apprécier objectivement euh, euh, tolluwaayu mesure du président jël parce que su fekkee ne tey dañu ne woon euh, yaxal nañ nañ téeméer président delluñu ci fukk du ñu kontaan. bu ñu téeméer président jox ñu ci lu takku ñu mën ci kontaan. waaye ci wax bi tey mënuñu lu rafet lu dul président li mu wàññi. waaye nag mbir mi duñ ko yemale foofu dañ koy continuer di ko gëstu. pour sa ndegam li ñu war a jot yëpp li ñu war a delloo yëpp euh, population yi. jox euh, citoyens yi euh, delloon nañ ñu ko parce que suñu alal la. président mayu ñu ko dundewee na. monsieur le ministre fan la nguur nguur gi maanaam sukkandiku pour wàññi njëgu courant bi 10 pour cent toll 30 euh, milliards de francais CFA ndax barigo petrole bi li mu wàññeeku la tey jii ñu ngi koy wecceeku ay 53 euh, dollars walla leneen euh, boole nañ ko ci ci wàllu maanaam justification kii bi wàññi wàññi bi ñu wàññi njëgu courant bi. li mu ci war a wax mooy di dañu war a rafetlu des ndax lu am solo la eh, ñi ko bañ ñi ko ñawlu dafa mel ni dañuy suñu président ni mu def eh, consommateurs yi sénégalais yi ñoom xam nañu que seen facture suñu ko wàññiku dafa am solo ci seen consommation donc par conséquent ñu ngi koy rafet li nga wax tamit est-ce que bés bi maanaam conjoncturel la dañ ko def parce que uniquement président daf ko bëgg a def parce que wax nañ ko fii te dafa am soupçon électoraliste du loolu ah élection yaa ngi ñëw de waaw élection législative leeral na mbir bi hmm. la ca nag mooy di euh, suñu société nationale la société nationale Sénélec euh, dafa nekkoon ci déficit société bii dañ ko redressé directeur bi li mu ci def war nañu rafetlu liggéeyam te loolu tax na d'abord première mesure ñu nekk ci position euh, wàññi njoogu électricité bi la ca topp c'est que président de la République wax na ko président de la République Macky Sall nee na dañu war a am mix énergétique mix énergétique bi war nañu boole à la fois solaire bi ak charbon ak en même temps hydroélectrique loolu yëpp daf ci bokk te su ngeen gisee li ñu def au niveau de Bokhol ak li ñu def au niveau de Malicounda loolu yëpp suñ ko dugalee ci position bi mën nañ xam ne que lii mën nañ ko def donc par conséquent wax ji bëri nañu rafetlu loolu loolu laa mën a mmh. euh, ku ku wax euh, courant nag wax ndox euh, loolu aussi defe naa lu lu am solo la ndox mi am na ay annonce yoo xamante ni njiitu réew mi wax na ko muy tabax bi ñuy tabax kër Momar Sarr benn. ñetteelu usine u ndox bi ñu war a def foofu ku wax Kër Momar Sarr moom fàttali mbir bu doy waar bu fa xewoon même euh, fan yi weesu sax amaan nañ fa encore beneen problème euh, raison bi ñu avancé ne parce que coupure de courant la mais bu ñu gëstoo ba euh, xam que affaire bi du courant bi kese la am beneen usine boo xamante ni aussi ndoxu géej gi la la ñuy maanaam jël def ko ndox boo xamante ni dinañ ko mën a mën a naan te président ne loolu dina indi sécurisation des besoins ci période boo xamante ni dina toll ci vingt ans ci région Dakar ak li ko wër donc ndox mi lan mooy ci sa commentaire. xanaa rafetlu rek euh, pexe yi nga xam ne président de la République mu ngi koy defloo gouvernement am pour fexe ba nit ñi euh, tàggale ko ak. Euh, tumurank goo xam ne nii ci wàllu ndox mu ñu naan la wala ndox mu lu ñu jëfandikoo ci réew taax yi te xam nga yem bu ko yebaloon foofu rek sax dinañu jàpp ne def na lu baax waaye euh, mën nañu wax ne booba euh, njaw des noo xambin mais balaa li baax liy ñëw parce que ndox mi moom lii ñëw la est-ce que gouvernement bi xawul sàggane ndox mi parce que bu ñu demee ba toog ay deux semaines trois semaines ñàkk ndox fii ci Sénégal parce que am na benn tuyau boo xamante ni pièce boo xamante ni bu paan est-ce que loolu du du ca waaw xam nga càggante nga loolu man mënuma euh, euh, wax loolu li ma xam mooy ne euh, tolof tolof dafay am accident dafay am nit mën na xëy jóge ko këram wér yëgul dara ci yaramam ndekk te am na lu nekk ci moom loo xam ne nii mën na koo faagaagal donc man du ma wax foofu li ma bëgg a wax mooy dama ne su fekkoon ah, président loolu question la kat bu ko évacuer kat waaw mais xam nga kenn ku ne waaw ah. lim xam la mën a wax waaw ah. du man jàpp ma ne gouvernement dafa sàggane loolu. jàpp ma ko. lan nga jàpp waaw mu ngoog moom loolu laa lay wax waxal lan nga jàpp li ma jàpp mooy ne. waaw euh, boo xoolee dans le cadre du PUDC ñaata forage la Macky sàll ci ñeenti at jàpp juróom defar te terewul Ndakaaru bi continue am ndox terewul dëkk yu mel ni ki Touba ña ngi fay gas ay forage terewul yeneen dëkk yi ñu fay def ndox ndox boo xam ne nit mën na ko naan léegi même habitude yi nit ñi am ci wàllu consommation ndox léegi nekkatul ndox mi naan naan ci teen wala ci wala wala ci ndaa léegi da am ay butéel yoo xam ne nii dañ koo togg saytu ko def ci ay ferñeent yoo xam ne nii dina dina la jox li sa sa wér-gu-yaram soxla loolu moom nit lu nit lu nit euh, euh, bañ bañ bañ euh, wax ngóora gouvernement bi xam ñu koy def te li leen li ci gën a neex mooy non seulement dañu beneen. forage ci boori Kër Mor Sarr mais gis nga waa Njàmbur ak euh, Ferlo hmm. ñoom am na loo xam ne ni ñu ngi koy waaj a def ci wàllu revitalisation des vallées fossiles loolu itam am na loo xam ne am na solo te boo demee par exemple Daga Jolof Jolof ci wàllu càmm forage pastoraux yi nga xam ne dañu fa nekk laa jot doole léegi maa ngi dem boo tese kere noonu laa gisee ci biir Kaffrine ak yeneen dëkk yi yu mel noonu ñu ko fay def en tout cas man li ma jàpp mooy ne président bii fi nekk. Euh, dama jàpp dama seetlu ne. wax dëgg yàlla. mi ngi fexe ñi ñuy jiitoon ñun bu bu ñu ko jëppi mook ñu mu àndal jamono. waaye mi ngi wane ñu mu jamonoonteel ne naw na leen te mi ngi di bàyyi xel lu nit jàmbal mi ngi koy bàyyi xel. la ci des mooy ne suñu njaboot gi ndax bu ngay di xel moom doom yaa tax suñu njaboot gi suñu doom yi nga xam ne ni fekki at ñoo ñuy wuti fi ñu nekk wala Sénégal dina àgg ci fukki million ak juróom-ñeent wala ñaar fukki million wala fanweeri million ci doomu adama lépp lu muy def moo xam train bi la moo xam jam ñaajo la moo xam saxaar gi nga xam ne nii mooy saxaar gi nga xam ne non seulement dina lëkkale jam ñaajo ak Dakar waaye li petit train bleu daan def dina ko def ba yokk ci nag fexe ba képp ku jëlee ko ëllëg jam ñaajo wala nga jëlee koo jas mën ci dugg te président yi ma foofu noonu xam nga saxaar gi bu nekk dañu doon naan Dakar tam euh, euh, euh, Dakar ko hmm. nga naan Thiès dëkk benn dëkk ñaari gaar président Macky Sall li mu sémbu def ko te tàmbali ko def waxuma lim lëkkaloog Mali de mais ci biir Sénégal ñetti junniy kilomètre ci saxaar ci chemin de fer la bëgg def maanaam di ko daree Thiès ba ba nga yegg Dakar ba ba nga yegg Tambacounda hmm. yemu fa diggante Tambacounda ba ba nga yegg Ziguinchor am na lu fa bëgg a def hmm. te loolu yëpp dafay ànd ak jamono ndax saxaar gi nga xam ne moom la ñuy wax TER hmm. li ci kéemaane mooy li mujj li gën a ànd ak jamono ci en France li li ma gën a ànd ak jamono la ñu indil te nit ñaa ngi wax ak di ko dëkkal fu mu dëkkul ba naan est-ce que Macky Sall demul pour wallu Alstom ma xamal ñiy wax loolu ne Alstom chiffre d'affaires annuel am trente milliards trente mille milliards dóor la 30 mille milliards. waaw mais ñëpp xam nañu kam Alstom dafa am ay jafe-jafe. ba ba gouvernement France sax def ci dugal ay koppar yu euh, baree euh, bari pour mu bañ a tëju. mais sama question ci ndox mi la woon ndox mi la xaaral ma xaaral ma continuer ci ndox mi. s'il te plaît waaw doon wax. waaw mais mais ñëpp xam nañ dañuy suivre aussi actualité Alstom dafa naroon tëj dafa naroon tëj premier ministre premier ministre Manuel Valls bi bi woon wax na ba ñu dugal ci ay koppar yu bari pour mu bañ a tëj waaw d'accord waaw bu la neexee bu la neexee ma sama question waa sama question ci ndox mi la woon euh, Ablaye Wilane euh, euh, Tafsir Thioye xëy na li wilaan waxul 96 bi SDE di ñëw effectivement projection bi mooy ndakaaru ak li ko wër ñu assurer maanaam jox leen ndox pendant vingt ans vingt ans bi moom la ñuy toll ni 2016 tey gii président Macky Sall ne vingt ans yi di ñëw dina fexe aussi ba ndakaaru ak li ko wër du ñàkk ndox ba ci sax yeneen gox euh, euh, gox yi nga xamante ni dañu nekk ci senegal euh, loolu nan nga ko jàngatee surtout ci diggante bi quand dund nañu ay jafe-jafe yoo vraiment yu tar ci wàllu ndox surtout ci kër Momar Sarr boobu ñuy wax. waaw mooy li ma rek man xam nga en fait dinaa diwaat ci grand bi rek man dama ko xaw yërëm xam nga tax ma yërëm ko mooy ñi mu nekkal au lieu ñu wax ko li nga xamante ni moom moo nekk dañ koy wax leneen dama lay wax rek te ñoom xam nga ñoom dama yaakaar ni ñoom li ñuy bind ñoom dañ koy fàtte ndox mi Sénégal dafa am trente cinq milliards de mètres bu d'eau moo nekk en surface quatre milliards li ci des mu ngi ci suuf renouvelable waruñu am problème mu ndox. ñun bi ñu ñëwee yéen da ngeen fi bàyyi niveau boo nga xamante ni pratiquement on n'avait même pas 60 pour cent d' potable ñun yóbbu nañ ko 98 virgule 7 pour cent PSE moo ko bind tey jii xam nga fa lañ nekk wàcc nañ en 2013 wàccoon nañ ba 95 pour cent en 2013 mu ngi nii document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2017 2019 tey jii ñu ngi dellu 98 pour cent bi ñuy ñëw ñun dañu programmé woon que dañu am déficitu 14000 mètres cubes ci Ndakaaru ñu nekk di ci liggéey en 2011 déjà si vous suivez bien ñu ngi woon di ci liggéey pour résorber ko Abdoul mbay premier ministre bi mu ñëwee dans sa déclaration de politique générale daf ni suñu résorber wul loolu diggante bi nii nañ am problème mu ndox mais ñu ko parce que traque des biens mal acquis ñu ko aujourd'hui tey jii histoire rattrapé nañu lu Sénégal mosul dund ci àddunaam trois semaines man toog naa quatre semaines sama kër amul ndox quatre semaines awuma ndox. s'il vous plaît s'il vous plaît du jamais vu. politique gu ndox mi politique globale la au niveau du monde rural ñu ngi ñëw fekk fa niveau niveau niveau de quatre-vingt pour cent ñoo xamante ni may lañ leen ndox ñun. yéen ba PDS seen sunu sunu régime notre régime a travaillé à donner au monde rural quatre-vingt pour cent virgule un PSE page trente et une ñu ñëw ngeen nga ñëw bu ko depuis cinq ans. 7 pour cent ngeen 6 virgule 6 virgule 6 virgule 9 pour cent ngeen ci yokk bi ngeen ñëwee ba léegi parce que da ngeen liggéeyul te grand bi xam nga lan moo ko sonal grand bi dafa ñëw dugg ci tarak de bi yàlla mag ne ko grand taxawal de yaa ngi juum de parce que yoon boobu. grand bi ngay wax mooy njiitu réew. oui président oui s'il vous plaît monsieur le président la république ma ne ko monsieur le président taxawal de gars yi ngi lay nax de parce que fi na dakkal na boobu léegi deuxième mandat moo ko nar a te deuxième mandat bi dina ko def loo lu wala gars yi dinañ ko def loo loo xamante ni baaxul ci réew mi parce que rythme de développement bi foo am léegi deuxième mandat yàlla moo ko yor parce que Macky Sall président yàlla moo ko fal te ñun dañ ko ko nangul yéene ko ko ñaanal ko ne ko nag yàlla la la yàlla may ndam mais bu jàppee ni dafa war a tëj bu jàppee ni dafa war a bunduxatal bu jàppee ni dafa war a modifier ay loi pour falu kon mu ngi fàttali ko fal te yàlla moo ni wa makaro wa makara allaahu wallaahu xayrul maakirina pexe boo mën maa leen dàkka pexe fukki junni yoon xuli allahuma malikal mulk tuuti mulka man tashaaw wa tanzihu mulka mi man tashaaw c'est ça la vérité nañ ko xam ñun ñëpp nañ ko xam parce que nous sommes des croyants ñun gëm nañ ñu waree falu day faluwaat mais li ñu intéressé mooy fal gi lan lay jariñ sénégalais yi tey jii mënuñu fi nekk en ñuy wax naan monde amuñu ndox ba doy ñuy nekk fi dañoo dellu ginnaaw ci wàllu ndox au plan urbain ñuy nekk fi naan semaines yu nga xam amuñu ndox alors dafa dafa dafa jéggi dayo jël 487 milliards di ko def ci Ila Touba s'il vous plaît 1000 milliards nga koy dépensé te amoo ndox 1000 milliards nga koy dépensé ay infrastructure yoo xamante ne amoo santé tous les indicateurs sociaux on est en recul tous les indicateurs et ça je défie tous les ministres on est en recul par rapport à et très bien et ça ce n'est pas juste euh, Maurice Ndione professeur Maurice Ndione ci ndox mi xam naa ni euh, surtout science politique nga nga kii sa xel gën a màcc waaye ndox mi aussi lu am solo la puisque askan wi moo tax euh, ñu nekk fii di def waxtaan wi ndox mi am na ay projection yoo xamante ni fii ak vingt ans président nee na dina sécuriser maanaam ci maanaam affaire u ndox mi ci Sénégal. waaw mooy en fait li ñu doon wax sànq rek maanaam euh, ñuy xool problème yi nga xam ne egseegul hmm. ñu leen di wutal ay saafara moom la ñuy wax prospective mooy naan anticipation loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa euh, néew doole ci réew Afrique yi booy seet ak ci Sénégal ci wàllu boo jël problème boobu dañu ko am maanaam problème mu seet la nga xam ne moo mën a moo mën a euh, jafe-jafe yi nga xam ne mën na ñëw ñu xool ko tey pour bu egsee fekk ne euh, am nañu déjà ay saafara yu ñu ci taxawal kon bu président ne euh, fii ak euh, ñaar fukki at dootu du ñu am problème mu ndax loolu dañ koy mënuñu rek lu dul di ko rafetlu waaye warul yem ci wàllu ndox mu dafa war a yem ci wàllu secteur yi nga xam ne yëpp c'est des secteurs vitaux secteurs yi nga xam ne parce que ndox bu amul dafay euh, dafay indi ay jafe-jafe yu bare waaw parce que nit ñi bu ñu toogee ñu def ñu kii loolu sax mën na booy xool bu fekkee dëkk yi nga xam ne dafa am conflit yàlla nañ ci yàlla musal da ngay gis ne ndox mi dafay nekk benn enjeu dañ ko war a contrôler donc ndoxu Sénégal approvisionnement Dakar approvisionnement Sénégal ci ndox

ba mu doy dafa nekk loo xam ne lu am solo la rax ci dolli ndox mi dafay am nu muy lëkkaloowe ak suñu koom-koom ci wàllu mbay mi ak ci wàllu yu bari ak rek ci wàllu nekkinu nit ñi kon su fekkente ne euh, sécuriser nañu euh, ndox mi nga xam ne moom la Sénégal war a jëfandikoo fii ak ñaar fukki at loolu lu baax la ñu ci euh, sonj gouvernement bi mu gën ci góor góorlu waaye ci yeneen problème yi it ni nga xam ne dañu toogee di xool li war a xew ci ñaar fukki at ñu fexe noonu ci santé bi ci éducation bi ak yeneen secteur yëpp li nga xam ne moom la euh, Sénégal am ay jafe-jafe. maître ci wàllu ndox mi. waaw euh, euh, Maodo mbiru ah. ndox mi dañuy wax benn question mu am solo li ñu fi yëpp mbiru ndox mi fi gën a important. parce que mën nañ mën nañ mën nañ manqué lépp saf ndox. Mm-hmm. dañ ndox au source de vie. bu mm-hmm. ñu ndox dara du sotti. man nag du ma ko aborder ci en xam ne d' abord dañuy wax ne affaire di président wax vingt ans yi c' bien si démarche mooy li ñu ma doon wax sànq xam nga prospective dafa am solo état stratège mooy lan tey fukki nit laay gérer ñoo nekk si dëkk bi am na ay tey borom xam-xam yoo xam ne mën nañ le dans temps dana ñaar temps de nit moo fi nekk temps temps la ñu soxla ak lii ak lii ak lii ñoo war def say anticipation parce que yaay def ay investissement public pour que balaa loolu di agsi ngay bañ def d'abord cest à balaa loolu di agsi nga teg fi li fi war ba doo def dabu mais dabu rek lañ fi def te mu bëgg yokk ci dara affaire ndox bi Sénégal du dakaar rek dakaar set très important man Dakar la juddoo Dakar voilà mais Sénégal du Dakar rek te problème ndox mi foog nag bu ñuy wax affaire analyse situation réew man nu ma ko rek séddalee Ablaye Wade def na fii Abdou Diouf Macky Sall dafa am système bu nekk ci réew mi bu am nu ñuy yoree réew mi di ko gouverner depuis 1960 est-ce que jaadu na tey 57 ans juróom fukki at ak juróom ñaar après indépendance ñu fi wax ne Sénégal dañu am problème mu ndox 57 ans régime yi fi jaar yëpp ko bokk ñëpp ñoo ko bokk bu ku nekk defoon li nga de def problème duñ ko wax tey parce que loolu c'est la surpriorité. sur priorité war nañ am gàcce Sénégal tey ñu naan am na Sénégal ay àll waxuma sax ñu naan àll waxuma àll fii autour de Dakar àll bi waxatuma ko ñoo xam ne fi nit ñi fi fi fi mala yi di naane foofu la nit ñi di naane jëfa jëfandikoo ndox loolu loolu dañ ko war nañ ko ruus tey moo tax ñu def yenn rawatina benn pièce bu paan moom laa loolu maa ngi si ñëw ah, ah. ñu def ay projection hmm. projet yu bari projet yu bari baax na xam nga wi daa na nga koy sànq affaire train bi ñu wax naa ko sànq li gën ci àdduna bi li ñu war a bëggal Sénégal waaye terre bi ngay wax yi tubaab bi du utiliser perfection est-ce que loolu la ñu soxla ku nekk dangay ngay defar li nga soxla da nga koy nattee li nga soxla pour bañ am li ñuy wax surcoût am na loo xam ne di nga ko jënd dépenser ko mu ëpp li ngay soxla mais da nga koy fay kon booy def defal yow li nga soxla bul def en fonction ñoom li ñu def loolu benn question la pour usine bi situation bu dangereuse la ñu vivre am nañ ci exemple toog fi ay semaine Dakar mun ndox defar nañ ko réparé nañ ko c'est bien mais xam nga dafa am lu ñuy wax plan de contingence xam nga plan de contingence pour kii ko ci wolof mooy boo yoree loo xam ni mënoo ko bañ utiliser war nga def système boo xam ne à côté la bu ñëwoon tey yëpp yàqu na bañ solution de remplacement la ñu ay forage plan de contingence liñ fi amoon pièce boobu yàqu ñu xaar ay weer xaw ma combien de temps di ko jëli France waroon nañu plan de contingence boo xam ne boo joxul dakaar cent pour cent nga am loo ko jox ba nit ñi mën ko jëfandikoo tey ba léegi kenn mënuñu wax ne ndax am nañ plan de contingence amuñu ko parce que amuñu ko parce que buñ ko amoon li fi xew temps yi la du privé. amaat na waaw amaat na de Kër moo tax non dama bëgg ne rek dama bëgg ne. sénégalais yi bu ñu àttee nañu xool suñu système politique ni ñu yore réew. façon bi ñu ko yore ak alal bi dugg ci réew mi ñëpp xam nañ ne Sénégal li mu jot ci alal amul benn pays Afrique boo ko fi jot te suñu besoin basique ñu ko fay fenn laay jeexalee sur les urgences président war na affaire santé benn question nag dafa ma itteel te bëgguma ko fàtte depuis Ablaye Wade dañu door réfection maternité hôpital Dantec ba léegi ubbeeku il paraît que deux cent millions la ñu soxla si loolu ana management te am na ñaari mbir yu am solo gis nga réew yàlla ñaari ñaari niveau day wane dooleem mooy juddu ak dee hmm? bu ñu sàmmul conditions yi nga xam ne suñu jigéen ñi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci mucce parce que bu ma wax euh, dante hmm. dante yow si àll bi nga nekk am na yeneen ak yeneen yu ñu wax ci loolu hmm. bu ñu sàmmul loolu sàmmuñu leneen parce que am na yeneen yu am importance bu ñu wax affaire hôpital ak santé fii am na fa ay hôpitaux yoo xam ne seen morgue baaxul nit ñu dañ fay yàqu non euh, c'est ah. très important parce que xam nga ñun li ñuy wax statistiques yooyu yëpp baax na mais ñu wax li nga xam ne Sénégal yi bés bu nekk moom lañu ñu jànkonteel et ça c'est des questions basiques boo ormaalul ñaar yooyu ragal naa dëkk bu ko toppatowul sa avancée dina jafe trop monsieur le ministre ci wàllu ndox mi après dinañu wax euh, ci Gambie parce que am na solo quand même ma joxe benn information pour askan wi askanu Sénégal ak askanu Gambie yëpp euh, tey jii ci jàkkaarloom ak askanu Gambie président Yaya Jammeh defa ne daal ay élection yu bees lay organiser loolu nekk xibaar bu bees bi nga xamante ni Chérif Dia ñu ko jottali léegi dinañ ko commentaire léegi léegi moom la ñuy jeexalee sax tey suñu waxtaan ci ci ndox mi monsieur le ministre. li ma ci mën a wax mooy di euh, lu bare wax nañ ko dama koy ndax ndox dafa am solo dama ko bëggoon wax euh, euh, euh, maître Adama maam Adama wax ko mooy l'eau source de vie su ngeen gisee même on parle de ñu ngi wax actuellement réchauffement climatique enjeu bi ndox bi ndax réchauffement su amee ñàkk ndox day am te loolu un peu partout à travers jur ay guerre wax nañ ko ci ay voilà soo gisee mm. y des conflits mm. même su ngay gisee soo seetee le conflit israélo-palestinien hmm. am na li nga xam ne wax ñu ko c'est hmm. l'eau du Jourdain hmm. naka la lañ koy partagé loolu mooy enjeu souterrain bi am na yeneen conflit yi nga xam ne entre l'Éthiopie et euh, l'Égypte le Nil parce que Nil dafa jël source pratiquement dans une rivière au niveau de du Rwanda. vallée fossile aussi. voilà vallée fossile gis nga ko. donc affaire wu enjeu international enjeu mm. international mm. mais en même temps aussi enjeu développement la. Mm. ci wàllu koom-koom ndax ndox su manqué euh, le maire. Euh, Wilane mu ko doon wax bi ñuy defee lépp ba lépp pratiquement sotti ndox bi euh, amatuñu woon donc de telle façon que. bi ko seetee récolte bi am na impact ci impact eh, ci ci récolte bi. Hmm. mais ci nekkin tamit. nit yi ni ñu mel ni ñu nekkee te loolu tamit euh, ndox bi dafa am solo man mi nga xam ne Tamba laa dëkk. dem au niveau de Kédougou dem au niveau de Saraya. Hmm. la question de l'eau euh, problème bi xam ne dafa am solo. ndax foofu ñàkk ndox bi. Hmm. lu mu andi mooy jigéen ñi di def ay déplacement waaye président Macky Sall dès le départ dafa jël ay résolution pour safaral ko. avec le PUDC progrès bu rëy moo am actuellement dans les campagnes soo fa demee énormément de forage maa ngi doon barab euh, Sara ma lu bi wax ni au moins c'est 17 villages lu toll 17 euh, villages ñu am forage dafa changer complètement seen euh, seen nekkin gannaaw loolu li nga wax tamit Gambie Gambie waaw ci 30 secondes ku nekk voilà ci 30 secondes ci dégg mooy lu ñu gën a ci at bu bees bi ñu bañ a am situation bi ñu andi euh, situation de guerre te Yaya Jammeh mu nangu que peuple gambien jël na résolution fal alors euh, keneen te kooku moo war a am euh, moo war a jël pouvoir bi à partir du 19 te defe naa ne démarche yi nga xam ne ñu ngi koy def médiateur bi nga xam ne dañ koo nommé mooy le président yi di Nigéria ah ñu ngi ñaan mën a convaincre Yahya Jammeh pour mu respecter verdict des urnes parce que loolu dafa am solo ndax euh, su ñu demee ci euh, résolution bi nga xam ne wo e jël na ko te ONU conforté ko Union africaine conforté ko mooy affrontement xam naa ne lu muy jur. Euh, bëgguma ci àgg. kon kon bu ko deful mais lu gën a am solo. waaw mooy di daal euh, mu nangu li nga xam ne. waaw askan Gambie. waaw lu mu bëgg mooy di. Hmm. nouveau président bi moom mu toog à partir du 19. bu ko deful Sénégal noppi na pour bokk ak force CEDEAO. dugguma dugg ba dugguma dugg ci considération yi. mais xam naa ne Sénégal. du Sénégal rek. mais CEDEAO la Union africaine la. conseil de sécurité assemblée générale des nations unies ñoom ñëpp ba ci président euh, ba ci euh, secrétaire général Ban Ki-moon téléphoné na Barrow pour wax ko yow la fal maa ngi lay félicité xam naa ne loolu yëpp dafa ko jëlee en compte. yow yaay président. voilà yow yaay président élu waaw yow mii yow yaay président wu yi buñ ko mënee résumé noonu est-ce que Yaya Jammeh mën na nekk ñu yóbbu ko yi du ma la tontu. donte Gambie. du ma la tontu Gambie génn na CPI. du ma ci wax dara doo ci wax dara. <laughs> du ci wax dara kon kenn du la kenn mënu la ci euh, euh, ab lay Wilane ci Gambie. 30 secondes nag parce que il faut ñu jeexal waaw ne ndok le ministre bi mu jaawalewul casquette ministre bu ñëw pour défendre ak euh, CPI bi. jërëjëf ñun parti soliste suñu doctrine. waaw bërki démb ak tey benn la question diplomatie ak question frontière u Sénégal unité nationale bi ak intangibilité de nos frontières dafa ñu dafa nekk question yoo xam ne dañu ci bëgg consensus national surtout bu dee suñu diggante ak réew moo xam ne ni mu séq ak Sénégal moom la Gambie séq ak Sénégal ci deret ci aada ci diine ci lépp mu mel ni ki làmmiñ ci biir gémmiñ waaye du ñu tee ñu fàttali nit ñi ne réew yu jullit yi ci àdduna bi yëpp ni ko mbootaayu xeet yi ni ko pays africain yi union africaine ak pays CEDEAO xalaatee di ko fexee noonu ñun suñu nguur suñu gouvernement wu Sénégal gis nañ ñi taxawaay boobu la taxaw li wax nag dañu bëgg ñëpp bàyyi ko xel te ñëpp am ci yéene bu rafet dañu ne le 19 janvier bii ñoom ñëpp bari na njiit yoo xam danañ dem fekke Adama Barrow mu jël service xibaar bii nga wax nag ne daf ñoo dab tey danaa la wax man sama xalaat ci xibaar boobu xam nga lu ma njort mooy ne nañ ne ko umuhu dégg nañ leen umuhu du doy du booy nopp te ñaan yàlla Nations Unies Union africaine ak CEDEAO ak réewu jullit yépp ñi fexe am ndam ci Yaya Jammeh parce que Yaya kat mel na ni dañ koo xoj. Yaya Tafsir Thioye xool dëgg dëgg dëgg dëgg li mu wax. reconnaître victoire waa ji ne ko dinaa la jàppale dinaa la dinaa la. waaw ba wël wëlbati ko defaat ni muy def nii nañ njortu ne am na ñoo xam ne nii ñi ngi àndoon ak moom ñooñu seen vie ak seen situation tax nañu xoj ko. kon nag yàlla bu cat dugg ba le 19 Adama Barrow nekk président diggante Sénégal ak Gambie am jàmm. jeexalal waaw Tafsir Thioye président Yaya jàmme ne tey gi ci discours bi mu def moom euh, li muy proposé mooy euh, organiser ay élection yu bees ca Gambie kon noppiwul daal maanaam bàyyi nguur gi. alors man li may wax ci Gambie xam nga Gambie man dafa bokk ci man parce que sama jabaru papa chérif la Gambien la dama am rakk boo xamante ni moom yaayam Gambien la kon donc Gambie dafa bokk ci ñun même peuple la suñu même nation tey jii li xew Gambie man dama jàpp man tafsir que échec diplomatie Sénégal parce que Yaya Jammeh lan moo ko siisuloo lan moo tax mu génn félicité waa ji ba pare siisu après est que du suñu doxalin la parce que moom ak président Macky Sall jubóowuñu lu tax ñu loolu war nañ ko xoolaat Yaya siisom bi lan moo ko indi nañ ko xool maintenant. moom kay ñëpp la attaqué na président Abdoulaye Wade. oui oui s'il vous plaît ah, s'il vous plaît président Abdou Diouf. s'il vous plaît s'il vous plaît. le président Yaya Jammeh ñëwul Sénégal. Gambie dafa nekk suñu biir mu ngi mel ni say boutique tey jii nga bëgg ko nga bëgg nekk ak moom sa à dire que ci suñu biir la nekk Gambie ñun dañ koy jël en charge. waaw gannaaw gannaaw loolu. léegi ay élections. oui d'accord naa mu nangu ne ñàkk na. oui lu tax mu siisu laa wax dellu ne dellu si waat waaw loolu laa wax élections yi yoon tey jii mu ne ay élections yu bees. yow yow loo ci loo ciy wax léegi. ay élections yu bees li ma ciy wax mooy man man li ma gëm man tafsir. waaw moo ko Yaya Jammeh mënul continuer gérer Gambie man gëm naa loolu gëm naa ni aussi contexte bi ñu nekk sur le plan diplomatique Sénégal mu ngi dugg ci loo xamante ni ëllëg ki si biir bu ñu deful attention parce que déglu naa le ministre des affaires étrangères su ma xarit la maa ngi koy nuyu mais d' accord ma ak façon waxam xaw ma lan moo ko wax loolu ak façon bi mu ko waxee man d' ma. parce que mënoo ñëw ci situation bu mel nii nga ni yow dañuy dem ñun ñooy jiitu CEDEAO ñun ñooy jiitu ci xeex bi waaw mais boo demee koy dóor bal su xeex amee koy dóor s' il vous plaît s' il vous xanaa déglu xanaa déglu woo la CEDEAO ñun ñooy jiitu la ñu wax gouvernement Sénégal loolu la wax. non s'il vous plaît waaw boo amul aar frontière Sénégal boo amul information. Sénégalais yi non mais waaw waaw il faut surtout il faut ñu ñu ñu ñu jeexal. waaw waaw Sénégal dañu ñoo jiite force yi. te loolu contexte bi xam nga mooy lan. Hmm. contexte Israël la parce que jël nañ décision bu mag boo xamante ne àdduna tàccu na ko xaw ma lan moo nekk ci suuf mais am nañ ci ndam mais ndam loolu ñu ñu am daf ñu créé noonu noonu bu rëy Israël du noonu bu ndaw dañ ko jël en compte deuxièmement Turquie ni ñu bàyyi leen yàfu sele mi ñu bañ mu forcé ñu imposer ñu nangu léegi Mankeur Ndiaye premier ministre des affaires étrangères nee na ni fetulaagu leen ay groupe terroriste la ñu jël suñu ay doom pendant des années jox ko ay groupe terroriste ñu leen di jàngal mais c'est extraordinaire et loolu contexte boobu. loolu yow naa ko wax de. professeur Maurice Ndione waaw ñu jeexal ci ci Gambie tey jii tey déclaration Yaya Jammeh s'il vous plaît déclaration Yaya Jammeh ah ne ne ne ne moom. li muy proposer ay org ay élection yu bees waaw mën dama yaakaar ni élection yu bees day fekk élection yi nga xam ne moom la ñu amal am sikk sàkk wala mu am luñ ko luñ ko rejeté mais mënuñu organiser ay élection ak une commission indépendante résultat yi génn ka nga xam ne moom la ñu gagné nangu ne gagné nañ ko ba woo ki nga xam ne moom la ñu fal félicité ko ba pare dellu si waat ne kenn gagné wu hmm. loolu xel mënu ko nangu te euh, mbootaayu xeet yi Union africaine CEDEAO ak bépp euh, dëkk boo xam ne démocratie ak jàmm moo la soxal mënuñu nangu loolu ndax démocratie dañu bugg muy euh, jëm ay muy am ay tànku kanam ci ci Afrique ak ci fépp wante bugguñu am tànku gannaaw kon dama yaakaar ne boo gisee président Yaya jàmme dellu ginnaaw xëy na dafa fekk ne kenn joxu ko porte de sortie garantie waaw nan dama yaakaar ne bu fekkente ne euh, dañu bëgg xool nañ lañ koy mën a amnistier bàyyi ko mu dem loolu dina tax jàmm gën a mun a am parce que li ëpp solo mooy li nga xam ne euh, moo nekk suñu kanam waaye bu fekkente ne dañu bëgg a xool saa su ne li nekk ci ginnaaw day andi problème dama yaakaar ne kon euh, yenn réew yi nga xam ne duñu ñu ay démocratie ñu koy woowee autoritarisme maanaam nguur gi di doxale ak doole ba noppi di akimoo alalu askan bi ñaar yooyu bu booloo dafay jur euh, joggati àq ak yelleefu àddama dafay jur euh, jaawale alalu euh, njiitu réew mi ak alalu réew mi te loolu dafay tax euh, euh, ki nga xam ne moo yore nguur gi day nekk prisonnier de l' appareil d' état c'est-à-dire que di léeg-léeg dina bëgg a dem mais du mën a dem parce que bu demee du xam situation bi nan lay demee. maître Mamadou Gueye mbirum bi ah. waaye est ce que léeg-léeg du ñu juum ci wàllu surtout ci comportement Yaya Jammeh nu ñu koy utiliser la est ce que moom moom ak ñun ñoo bokk ay code dafa am ay règles internationales. Ah. yoo xam ne moo euh, ñëpp dañ kenn waru amul droit waroo ko boo yoree réew du noo doo nekk sa biir dëkk rek la neex ne moom ko fay def parce que communauté internationale dafa am ay règles euh, li wax si loolu mooy vraiment du lu ñu rafetlu mais nag na xam ne euh, Yaya Jammeh amatul lu muy décider élection yi passé na constat bi def nañ ko organisation yi nga xam ne muy CEDEAO muy Union africaine muy Nations Unies euh, dëggal nañ li am euh, résolution yi jël nañ ko je pense que li ñu war def mooy ñun euh, marqué suñu solidarité peuple Gambie comme ni ko Tafsir waxee ñun ndax Gambie benn lañ fexe nag def lépp lépp lépp lu ñu mën def ba yëngatu bañ am foofu hmm. waaye terewul nag mbir yi dañ ko a teg fi ñu ko war a teg si wàll woowu. président Macky Sall ak suñu gouvernement li ñu def dañ leen ci war a jàppale te question yu mel nii nag c'est des questions yoo xam ne détails yi du ñun ñoo ko war a c'est des question trop important booy vraiment am na ay institutions yu ñu bokk am na suñu état nu mu ci féete am na données yoo xam ne suñu chef de l'État évalué na ko ak gouvernement ba jël décision nañ ñun euh, euh, dooleel suñu gouvernement biir Sénégal am benn divergence ci question boobu. ba ci intervention militaire. bu ñu am benn divergence ak suñu gouvernement tant que suñu gouvernement mu ngi topp résolution yi nga xam ne organisation suñu état bi ñu ci bokk ci la bokk. mais daal biir Sénégal daal nañu am ko bu bu ñu am dara lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu xajale ci mbir moomu par rapport ak suñu gouvernement. kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ci waxtaan bi am solo bi ñu amoon tey. Euh, jagleel ko maanaam euh, jàkkaarloog bi njiitu réew mi président Macky Sall amoon tey comme niñ koy faral di def Abdoulaye Wilane fàttali na ko depuis temps wu Senghor euh, ba ci monde bi yëpp sax mën nañ ko jàppee noonu lu mel ni 31 décembre kiy jiite réew mi dafay jàkkaarloog askanam moom la ñuy def tey mesdames messieurs merci de nous avoir suivis un débat consacré au message de Nouvel président Macky Sall du Sénégal, déclaration forte de ce discours, la de 10% du prix de l'électricité. Donc, déwénati yéen ñëpp, bonne Merci, à à la rédaction qui s'est mobilisée. Hein. Chérif mais aussi euh, Vieux Diouf côté de la technique avec euh, les caméramans, preneurs de Euh, merci à tout le monde bonne et heureuse année encore une fois pour